kon dee mi nga noonu kenn mënut koo daw te léeg-léeg nga bëgg dund fekk dee gën ci yow ndax nit bu waree dem safara gàtt fan a gën ci moom gudd fan ndax lu mu fi gën a yàggee rek bàkkaaram gën a bëri te nu bàkkaaram gën a bëri mbugalam gën a tar nit ku war a dem aljana ñaareel tamit la yonent bi wax àdduna day mujj nekk kaso bu ko teree dugg aljana te fekk deewul du mun a dugg aljana moo waral Suleymaan mos nañ koo indil benn kaasu njar bu bàyyee ko aljana ñu xamal ko ne ko boo naanee lii doo dee mu diisu mbooloo xam man ndax moom yàlla tàggataloon na ko jinne yeeg malaaka yeeg yenti yenti suuf yeeg njanaaw yi mu xoolu leen ñoom ñëpp ñëw ba mooy signeel ba ñëpp ñëwee mu ne leen dañ ma andil naan ak aljana su ma ko naanee du dee ndax mën naa naan wala du naan ñenn ngi ne ko mën ngaa naan mbooloo ma yépp boo ko naan nga danga fi yàgg tey sa yàgg fi suñu njariñ léegi ba mu des si ñeen ba nga ñëw mu yónni fas ak lu ñuy tuddee xoob ne leen dem leen ngeen woowal ma si ñoom ñaar woo ko mu bañ ñëw mu door a yónni xaj ne ko demal nga wool ma signeel signeel ñëw Suleymaan ne lu tax ba ma njëkkee yónni sama ñaari ndaw yi ci ñaw ñëwuloo benn ndaw bi ma woo ko nga door a ñëw mu ne ko ñaar ñi ma woo ñëpp ay workat lañ fas warkat la man nga koo yafal ba mu suur nga war ko mu màmm ak yow gaañ man kuy xor du ma wuyu ji ab ku ma yónni ci moom du ma wuyu mu ne ko xoob warkat la danay topp ku dul boromam boromam danay sonn ci moom lu am jox ko jàmbur romb ko rek mu bàyyi boromam topp topp topp maanaam kenn ku dul boromam mu ne ko xaj nag turwee ñaaw waaye ku am kóllëre rek lay lay topp te loo dóor dóor loo dàq-dàq boo wanee gannaaw rek mu toppaat moo waral nag bi ma xaj wooyee rek ma ñëw mu ne ko man di dañ maa andil am naan boo xam ne su ma ko naanee naa gudd fan du gaaw a dee ndax mën naa ko naan mu ne ko naana waaye maa ngi lay xamal ne gudd fan bu la yóbbu ci kaso warul génnati dee ci teraanga moo ko gën kon léegi-léegi nit bëgg a dund lool waaye dina tollu étape boo xam ne dee rek mooy gën ci moom yonentu daana wax ne nit bañ na ñaar doomu aadama bañ na ñàkk wërsëg néew alal bañ na gàtt fan mu ne ñaar ñëpp nag moo gën ci moom ñu ne ko lu tax mu ne boo néewee wërsëg bu yowmal xiyaamee da ngay neex a réglé ku la gën a bari alal kooku mooy gën a bari problème àllaaxira dërëm bu ne foo ko jëlee foo ko dugal laaj yëpp ci àdduna laaj yëpp ci àllaaxira benn laaj la ba mooy alal alal moom dañ la laaj foo jëlee dërëm bi ak foo ko dugal boo jëlee fu baax dugal fu bon ñu mbugal la boo jëlee fu bon dugal fu baax tamit ñu mbugal la li lay mën a musal mooy jëlee fu baax dugal fu waaye tiriyaa alalu jaamur itam tabax jàkk tiriyaa alalu jaamur yi tabax daal tiriyaa alalu jaamur yi dem aji ci màkk seex na tijaan yi mu ne mi ngi mel ni nga jël yére fóotee ko sobe lu tax mu set dafa yokk tilim nag su bu sa alal tuutee day neex a réglé alal ju bari nekk ay milliards ay millions ñi réglé ko mu set dara newu ca yombut de moo tax boo ko bëggee dégg seetlu ko tey ñuy wàccee conteneur duggee ko Dubaay war a wàcce seeni conteneur ñi yore yeneen i ni ñi ñoom ba ñu ñëw di wàcc ci avion bi benn bagage accompagné rek lañ yor du ñu am problème day wàcce di jël taxi ñibbi waaye kee dana fa nekk di yéeg duwaa ñàkk jóge ko wàcc sama conteneur bi lii di réglé bu àllaaxira noonu lay mel moo tax yonent bi ne bu yowmal qiyaamee yonent yëpp Suleymaan moo ci mu ngi dugg ngi nit ñi dañ dugg aljana mu toog diirab juróomi téeméeri at door fi dugg fekk lépp ñu ngi réglé xanaa ci nu mu ko amee ak mu ne tamit nit ki day bañ gàtt fan gàtt fan a gën ci moom ndax buy ku baax buy deere dem aljana buy ku bon moom nu mu fi gën a yàggee bàkkaaram gën a bëri su ko defee nu mu fi gën a yàggee bàkkaaram gën a bëri bu dee tamit bàkkaaram gën a tar moo tax nag yàlla indi aaya ji di xemem loo saxaaba yonantu bi xare wan leen ne xare ji taxut a dee ñàkk xare ji terewut a dee daw dee taxut a ci dee moo tax mu ne ko alam tara xanaa yëggul sax xam ila na jëm ci mbooloo ma nga xam ne xarajoo génnoon nañ min diyaarihim bàyyi ko seen kër yi wahum fekk ñoom uloofun ay junne lañ lu taxoon ñuy génn xasaral mawti ngir mooy tuddi ko dee fa qaala wax na lahum ñaan leen allahu yàlla ne leen muutoo dee leen ba ñu deexee rek diirab juróom-ñetti fan mooy ba ñuy daw peste ba dugg ci seen xur woowa su ma ax yaaw topp mu dundal leen gannaaw juróom-ñetti fan ci ñaan ak seen ak yonantu bu ñu tuddee xisqiil inna laaha naka yàlla la zu fadlin borom nga neen la ala naas ki nit ñi walakin na fi nekk ak kasara naas li gën a bëri ci nit ñi laa yashkuruun duñ sant xéewal yàlla de lu leen yàlla defal tax sant ko léegi nag xamee ngeen ci ne dee kenn mënu koo daw kon nag yéen sahaaba yi wa qaatilu dem leen ngeen xeexi fii sabilillah ngir yëkkati diine wax la moo na ngeen xam ne ana laa naka yàlla samiyoon aji dégg la wax yi alimoon aji xam la tamit pas-pas yi man sa lati ana kan kaaka yuqridu mooy lebal laaha yàlla xardan lebal xasanan koo xam ne bu rafet la fayu daaxee foofu ko defee yàlla fulal ko la woo ñaan ko addawaafan ak ful kasiran koo xam ne bu bëri la kasiran bu bëri la wallaahu yàlla yaxbidu mooy xatal wërsëg wa yabsutu mooy taxlal wërsëg kii ko wa neex wa turjaxoon li des ci yéen rek mooy kam ci yéen mooy man a jug ngir labal yàlla lebal bu sell di ko labal bakkanam boo liggéey yàlla tertoo ko bakkan bu dul deexati du goxal jana kan mooy lebal yàlla ci alalam su ko liggéey yàlla jox ko alal ju dul jeexati ci xéewal ci fayee ko ko teraanga kan mooy lebal yàlla ci xam-xamam kan mooy lebal yàlla ci jotam di ko jullit te du ko yokk dara su ko defee kon lebal yàlla liñ ko mën a lebal lu bëri la te liñ ko lebal lépp moo xam da nga ko lebal ci sa alal wala nga lebal ko ci sa wér yaram wala nga lebal ko ci sa kàttan wala nga lebal ko ci sa xel wala ci sa xelaat wala ci sa xam-xam wala ci sa ndomba tànk wala ci sa daraja ci wàccee ko ci si kanam nit ñi loolu lépp delloo ko ci say jaa sa moromi jaam yi bu ëllëgee yàlla fay kon yàlla dañ ko mën a lebalee bëri na mais nag ñëpp mënuñoo lebal yàlla benn waaye dafa tuub bees dégg ñu ne joxe benn yàlla fay la fukk man jaa bil xasanati falahu ashru amsaaliha mu xëy rek amul dara lu benn téeméer bu mu waroon a joxe dépense mu joxe ko ne maa ngi ciy xaar yàlla fay ma junni toog ba midi bëgg a jot soxna si ne ko marché jëm de mu ne ko damaa leble woon xaaral ba ba tabaarakallaahu li ma lebloon bor bi ñëw muy toog di xaar di xaar presque ba une heure dara ñëwut mu dem ci sëriñ ba ne ko ah yéen yéen a wax ne ku lebal yàlla benn mu fay la fukk man maa ngi lebal yàlla depuis suba teel ba inéer a ngi nii sama kër dara tàkkagul te fayagul ma dara mu ne ko leble ko ngir yàlla rafetut da ngay leble ngir bëgg a santaas yàlla ak tamit bëgg a jooni léegi mu ne ko léegi man daal li ma ko lebaloon bu ma ko manta sax fay ca la ma ko joxoon la ma ko maanaam lebaloon xaar ci moom mu jox ma la ma ko joxoon sëriñ bi ne ko loo joxoon yàlla mu ne ko téeméer mu ne ko téeméer a waaja daal ba muy jox waaja téeméer ba muy génn nag rek am ko ñëw nuyu ci sëriñ bi nuyuwaale ko kayitu bi mu ne ko waaw ah yéen yéen a mën a leble man mënumaa leb mu ne ko waaw niñ ko niñ ko jàppee woon ak ni demee duul kon man sa la si yokkul laa qadar xasanan ci pas-pas lay nekk gis nga xisaab la ngoog pour mën la koo détaayal nag xisa bi ci sarxa bi waxoon naa la Esqiil mooy troisième xalifa ci banu Israil Moussa fi ne woon génn àdduna ba muy dem mu samp Yuusuf ibnu Nuun kooka taxawee xilaafa gi génn àdduna léegi nag gannaaw si gi ku ñu tuddee Kaalib wuutu ko génn àdduna Esqiil door a ñëw gannaaw Esqiil ci la Ilias ñëw gannaaw Ilias ci la Yasaxu ñëw ñoom ñi ñëw alxuraan tudd na leen Esqiil mooy Zul Kifli ñu taxawee xilaafa ga ba mu rafet comme na ko leen njëkk ñu taxawee woon gannaaw si gi nag ñoo ñëpp dee nañ kenn neetu ay amaali xaddi ay kàccoor yu am doole dëkk ci dëkk boo xam ne dafa jege lool baytul muqaddas ca Palestine ca wetu Gaza ñëw dal ci seen kaw doomi am liiq lañ im noo at ñëw not banu Israayil ji jàpp seen doom ya ay jaam li ko defee nag ñoom ay ponkal lañ woon seen buur ya rek matoon nañ ñeenti téeméeri buur ay kilifa lañ sàdd ci ñoom ay galak ñuy fay impôt booba nag amatul benn yonantu bu fa ne ci banu Israël amatul ab so yonantu bu fa nekk lu dul benn jigéen koo xam ne dafa ëmb bokk ci sati laawi yi xam nga te laawi bokkoon na ca doomi Yaquba ya doon fukk ak ñaar léegi nag ndaw sa bi mu ëmbee ci la ñu ko nag denc di ko defi teraanga ba yàlla dogal mu am doon doom bi nga tuddee Samuel Samuel di ab yonantu mu ñu gaaw rek rawale ko ci baytul muqaddas mu yaroo fa màgg fa léegi nag mu toog ba ci yàgg rek ba rek mag màggagul lool am ko woo ne ko dellul ci sa nit ña sa nit ñaa ngay leen di not fekk ko ko fonk la bi mu ñëwee ne ko man dama doon nelaw am ku ma woo mu ne ko mu tëddaat tuuti amaat ku ko waaye moom mi ngi koy dégg waaye ki ko yar dégg ne ko demal nga tëdd ba mu ko woowaatee ba ne ko dellul ci sa nit ña sa nit ñaa ñu ngi leen di not di leen def ay jaam talaw ca ca yow mii lañ sonn ci yow nga yaakaar nga leen ba mu ñëwee nag nitam ñi ñu bon lañ banu Israël ñu yàlla bind ñoo ci gën a bon mooy siif yi ñu ne ko yow de dangaa teel a ñëw teel ngaa wax ne yàlla ma yónni di yow teel ngaa bëgg a jël kaala di teel ngaa takk kaala te demagul ci sa ndigli di mu ne leen ax ah ak kay yàllaa ma yebal ci yéen situation bu métti bi ngeen nekk ma war leen ci digg te booba sonn nañ ci lañ ko def nekkoon léegi dañoo bëgg nga sampal ñu kenn ci ñun mu war a nekk buur bu ñu war a ànd ak pour war a dem xeex la ne leen gàtt yàlla digal na ma ma sampal leen benn buur bu ñu tuddee taaluuta ñoom tamit dañuy yéemu ne ko année yekkoon la woon kii nu mën a nekkee buur gi ñu mu ngi nii amul dara amoo dara yàgg na fi de maanaam nit ñi pour ñu jiital ko amul dara lu jafe-jafe la amoo dara lu fi yàgg la ñu ne ko mi ngi nii amul alal bokkut fu baax ndax booba ñaara fi ne ñaari sëti yàquba yi ñaari ñaari doomi yàquba yi seen sët ya ñoo daal doonante ñi ñoo doon nguur gi ñi ñoo doon wàllu nubbootu gi ak risaala gi bunyamin mi bokk ak yonentu yàlla yuusufa benn ndey ak benn baay néeg booba ci la nubbootu mosee xew te ku mos a nekk nu bootu rek ci foofu nga daan génnee ci sëti ci doomi Yaquba yi ci sëti ya ba ca banu Israil yi waaye ku mos a nekk buur ci banu Israil ba ci si fii tey nekk fii tey ilif Angleterre dem ba ilif Amérique ilif tey adduna bi ay sëti Yahuda lañ mooy taawu yonentu yàlla Yaquba léegi nag ki leen euh, Samuel proposé mu war nekk buur ba kooka nekkul ci ñaari doom yi nekkul ci ñaari sët yi kenn du sëtu Bunyamin nekkul sëtu maanaam Yahuud sax moo tax ñu ne ko an na yakunu lahul mulku alayna an na yakunu lahul mulku alayna moom lay wax si nii nag léegi nag Samuel bi nga xamee na ñëw na la ca xew lay alquran di wax si ni ne alam tara xanaa yëgul sa xam yow yonent bi ilal ma lay jëm ci mbooloo min bani israil ñu bokk ci banu israil min ba'di Muusa gannaaw génn àdduna ak Muusa ak ñi ma ca yuusox ak kaalib ak isqiil ak ilyaas ak yasaru id qaalu ba ñu waxee li nabiin ñeel yonantu lahum boobu ñeexal na leen muy samwiil ne ko ibaas na nga samp lanaa ñeexal ñu malikan buur nu xaatil boo xam ne danañu xeex moom fii ngir yëkkati diine yàlla ji xaala wax na moom yonantu ba di Samuel ne alxasiitum amaan na yéen de in kutiba ndeem dogaleef na aleykum ci yéen alqitaalu xeex damay ragal alaa nu xaatiloo ngeen ñàkk a xeex ñu ne ko wamaa la naa an moo ñu ñeel alaa nu xaatila ba duñu xeex ak ngir yëkkati diine yàlla ji wa qad uxrij naa te mbir moomu génneef nañu min diyaari naa suñ kër yi wa ab naay naa ak suñ doom yi ñëpp maa kutiba ba nga xamee dogal leef na farataaleef naa leen ci ñoom alxitaalu xeex tawallaw ñoom ñëpp ñu dëddu ngir tàppet illaa xalilan lu dul ñu néew minhum te ñoom de ñoo ca desoon wallaahu yàlla alimun aji xam la bi xaalimina ci tooñkat ya de léegi nag ba yàlla farataalee ci ñoom xeex ñu néew di 313 rek ñoo mujj dem xeex yi ndax ñoo jéggi dex gam leen tere woon na bu ci kenn naan léegi nag ba ñu xamee ne caaxaan fàcc na yonent bi wax na leen lu leer xeex yi mënta ñàkk te moo taxaw seen kaw ku leen sampal léegi nag ñu ne ko kon ñuy léegi nag sampal ñu ku war a ànd ak pour war a dem xeex wa qaala wax na lawum ñeexal nabiyum seen yonantu ba ne na laa naka yàlla xat baxasa samp na lakum ñeexal leen taaluuta mbër mu ñu tuddee taaluuta malikan muy buur xaaloo ñoom ñëpp ñu ne ko anee yekkoonu naka lay nekkee la woon ñeel ko almulku nguur gi alay naa ci suñ kaw te wa nax nu ñun axaqu ñoo gën a xeyoo bil mulki ci nguur minu ci moom ndax ñun ñooy sët sëtu bunyamin ñi ñooy sëtu yahuza te moom mi ngi nii du ci ñaari ñi kenn moom nekkoon na ko xam ne da daan dëbbu daaxe ñi ne ab sàmm la woon te ñaareel bi wala mu yuuta joxee fut ko saxatan ak yaatu minal maali ci alam mi ngi nii amul dara dara amul ko ku amul dara naka lay mën a jiite ci kanam nit ñi xaala yonentu ba ne leen inna laa naka yàlla istafaaw tànn na ko maanaam wa aleykum ci yéen wa zaadahu tëbb na ko bastatan ci yaatu fil mi ci xam-xam wal gis mi ak jëmu ju rafet de jëmu ji mate na ko xam-xamam matee na ko kon am terewut a nekk ndax bis bu nekkee buur waaye buur ci ñaar lay tegu mooy na ko jëmm ji matee ñaareel bi na ko xam-xam bi matee am na ñoo xam ne boo leen jàkk rek xam na jëmmi buur mi ci ñoom waaye tamit am na ñoo xam ne xam-xam ba leen yàlla dénk bu ko gis xam ne xam-xam bi mën nañ cee yore nguur waaye léegi na nga gis koo xam ne xam-xam ba dana ko matee waaye waye ga ak fulla ga du ko matee léegi-léeg xam-xam ba mate ko waye ga ak fulla ga mate ko mais jëmm ji du ko matee yi moom na man leen ki ma leen indil xam-xamam matee na ko jëmm ja mat na ku gis jëmm ja xemeem ko te maanaam bu waxee mu nekk solution boo xam ne ñëpp mën nañ caa jaar ba kenn ñëpp mën a gindee te loolu la ñuy defee nit wasaadaw bastan fil ilmi wal jismi génn góor góoreem moom de wasaadaw bastan fil ilmi wal jismi yàlla defal na ko maanaam jëmm ja daal mat na ku ne ko jàkk da xam ne daal jëmm ji mat na buur ku mel ni président ab ab ab Abdou ab kii tabaaraka la Abdou Diouf moom tamit de wa zaadahu bastan fil ilmi wal jismi jëmu ji tamit matee na ko da ña ca des nag yàlla xam moo tax mu ne wallaahu yàlla yuuti dana joxe mulkuhu nguuram ga ma ne saa ku ko soob de wallaahu yàlla waasi'un aji yaatu la ngëneel alimun tamit ku xam la de léegi nag ñu xam ne nag léegi caaxaan fàcc ne te sonn na ñu ne ko nag léegi wax ñu màndarga muy tekki ne mën naa nekk suñu naka la mën a nekkee buur léegi ko wax nañ ba mu lee mën ta ñàkk ko man màndargaay tax ñu xam ne kii bañ waxee loolu rek wa qaala wax na lahum ñeele nabiyum seen yontu bañ sàkkoo mandarga ci am nguuram ne inna ayata mulki naka mandarga nguuram nga an yaatiyahum mooy mu dikkal leen ba dikkal leen taabootu ak gaal taabootu waxande fii ci goo xamee nekk na ci sakinatun dal ak seen xel ak seen xol yi min rabbikum bàyyi ko seen borom wa baqiyatun ak ngesit mi ma taraka ci loo xam ne bàyyi na ko alu Musa ñuñ Musa ña wa alu Harun ak taxmiloo dana xenu ko almalaykatu malaaka yi ina fi daalika naka nekk na ci loolu la ayatan kaawteef buy tegtale ne kii mooy nekk seen ak buur laa kom ñeex leen i kuntum ndem nekk ngeen mu ngeen di way gëm de ñu ne ko wan ñu màndarga te ñoom fekk ñoom amoon nañ benn taabut bu yàgg taabut bi wax nañ ne yonantu yàlla aadamaa ko wàccaale woon aljaana ñu desee ci yonantu yépp ay bagaasam nekk ci muy wàcc ba ci yonantu yàlla Musaa Musaa euh, fi la bàyyi woon togitu togitu aliwaay tawreet ya ca la nekkoon kaalaak yonentu yàlla Haaruna ka ca la nekkoon bagage yu bëree bëri ca la nekkoon bu ñu daan xeexi nag dañ daan jël euh, gaal googa lonk ko ñaari fas ñu jiitu xare bi bu ñu demee rek gane mosuñoo xare kenn jël taabut ba jiital ko lu bëgg a def ba ba ba am nañu victoire léegi nag ba leen ñii ma limoon sànq noté muy amaale xëy dañoo nangu taabut bi ñoom tamit dem gas ko ci seen place bu sango sang fu ñuy fu ñuy tuur ndox suul ko fa def ko sobe di ca saw yàlla mu ñu di leen sant feebaru baasu seen kanam yooyu niwi ñuy dee bu ñaaw mu gi nag xam ne lii yàlla nag yëkkati taabul ba ci ñoom gisatuñ léegi nag mu nekk lu leen réer kenn gisatut ko ba ba lii xewee nag yàlla jël ab Samuel yónni ko ci ñoom muy seen yonantu mu sampaleen taaluta muy seen ak buur leneen ne bu ngeen demee këram da ngeen fekk taabul booba nga xam ne mën daan may victoire ci këram fekk yàlla xebal na ay malaaka añ wàccee ko ca kër ga ñëwal fekk fa taabul ba fekk fa togetu aliwaay tawreet ba fekk fa kaala ak yonent yàlla Haaruna ga daal di Muusaa yaag yeneen ak yeneen ak yeneen ñi xam ne nag léegi nag caaxaan fàcc li ci des nag mooy takkaay yu rek a dem léegi nag ñi war a jóg ngir xeex yi ñi dal ci seen kaw léegi nag départ nañ samp nañ léegi ki nga xam ne mooy Eh, buur ba di taaluta tànn ci ñoom tabaarakalaaw seen waxambaane ya ñoo xam ne nag soxlaay àdduna gaaru leen waxoon na am war a fay que fay a fay bor ñu mu ne tamit ku am seet bu bees bu sa nameel jeexagut ci moom may naa la ngànt mën ngaa topp mën ngaa topp képp koo xam ne tamit dangaa war a toppatoo say ñaari waajur ngir dañoo feebar wala ñu nekk ñu néew doole may naa la ngànt bul ma topp yëkkati daal ñu bëree bëree bëree bëree jox leen ngànt ne man ngeen a topp léegi nag gaa yu bari topp waaye ñu bëri tamit départ nañ war a jug ànd ak moom léegi nag ñi war a départ pour war a xeexi nag mu war leen mu war leen a wax nag la mu war a wax falamaa fasal yàlla ne falamaa fasala ba nga xamee ne génn na taalutu taalut bil juddoo di ànd ak soldaar ya bàyyi ko baytil muqaddas muy guddi bëccëg koo xam ne bu tàng xaala leen wax bañ génnee ne inna laa naka yàlla mu butalikum aji nattule leen aji exeme leen bi nëhrin ci dex dex gi mi ngi ci diggante Ordon ak Palestine fa man shariba képp ku naan minu ca ndoxu dex ga fa laysa minni bokku ci ñama war a topp wa man lam yatamu képp koo xam ne mosut ko fa innahu naka na min nii bokk na ci ñi war a topp de ah illa man iqtarafa lu dul koo xam ne dafa tànk xarfatan ab tànkin bi yadihi ci loxoom defee maanaam mu guux loolu doyloo ko ne lim ci namm lu dul koo xam ne da ngaa jukki benn baat wala nga dugal benn pot te loolu lañ ci mën a naan naandal ci sa fas ñeen na ngeen tànqit ma mooy sa rek lay doon waaye yàlla dana mën a fekk lu tuuti mu bëril ko comme na nga ko defalee ca ñam ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam booba tamit ku jëm ku ku tënk loolu la mu ci naan sa fas naan ci nga doy loo waaye nit na fuqali nañ fa shariboo naan nañ minu ca ndox ma illa xal lu ñu néew minu ca ñoom de ñëpp naan ca ba mooy ñetti téeméeri nit ak maanaam fukki nit ñett muy 313 moo waral limam 313 yàgg naa gañe ndax moo toppoon yonent bi ca Badar limam 313 tamit moo topp Taaluuta pour mu war a dem xeex léegi nag ba ñëwee ba ca def ga rek ñëpp naan. ku naan rek sa tuñ yi soppeeku dootoo mën a demati ak tàppet ak tayal dugg la nga ne man dootuma xeexati toog foofa léegi nag tabaarakallaahu fekk matoon nañ téeméeri junne nit kon kon soldaar yi bëri nañ téeméeri junne soldaar matoon nañ ko yore seen ñekk ay ngànn borom yi ngànnaay yu ñaw nekkoon ñoo xam ne tamit tabaarakallaahu seen bëri waay kenn mënu la ko wax nekkoon nañuy xeex ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy xeex ak di ñu ci jaalu taya seen limba dégg nga ñoom parce que téeméeri bi ne nit am na ñu ne gënoon nañoo bëri loola jaalu boppam rek gudd la woon am na ñu ne mbaxanaam ma rek mbaxanaam ma rek matoon na ñetti téeméer yi ñetti téeméeri yi lii baax kon mbaxana ma kon kooka bopp ba ko yenu ponkal la ngir rëyaay gi ñetti téeméeri liibar nag boo ko doon calculer xam dana la jox dana la jox dana la jox daanaka téeméeri kilo ak ak ak kon moom woppam ba kenn xamutoon léegi nag ñen ñee naan nañ mu des ñetti téeméer ak fukk ak ñett muy 313 ñi war a jug nag jaamaarloo mbooloo mu bëri nii di téeméeri junne te seen ponkal mañ war a xeexal nekk ku ñu tuddee tabaarakallaahu jaaluta jaaluta moo jiite armée bale fii taaluta jiite léegi nag ci biir armée ba xale ba ca gën a ndaw ñu ko tuddee daawuda ibnu aysha bokkoon ca biir soldaar yi jullit ña di taaluta moom nag baayam amoon na fukki doom ak ci gënoon nekk tuuti daan sàmm gàtteer léegi nag bañ waree dem ngir ngir xeex yi ca la yonantu ba xoote wala tala xoote ne jox nañ ma ab diw ku ma ko diwal bu bopp bu diw ga roogaatul wàcc rek wàcc rek kooku mooy rey maanaam jaaluuta la mu ko doon diwee nag di leen diw di seet ci béjjën la ko defoon def ca diw kum ñëw dana roogaat wàcc ba megsee ci ci daawuda ci la door a yem daawuda départ na romb aw doj mu ne ko jël ma maay doju yonentu yàlla Muusaa wa beneen doj ne ko maa doon doju yonentu yàlla Haaruna wa doj ko maay doj wi nga war a reyee Jaaluuta mu boole ñetti doj ya muy benn doj ñoom nag dañoo fooroon ci mbëkk loolu léegi mooy laspeer départ nañ nag ña ngay war a dem ca xeex taaluuta nag tamit teg na prime teg prime lu fi yàgg la la ne képp ku rey jaaluuta danaa la may sama doom bu jigéen séddoog yow sama genn wàllu nguur gi si ñël la ko nga xilif genn wàll gi ma xilif genn wàll nit nag yàgg naa bëgg prime départ nañ nag moom lay alxuraan wax si war a jëkk ci dexkat ak 313 parce que ñeneen ñoom ñëpp kenn ñëwatut moo tax mu ne fala maa jaawa soo ba nga xamee ne jéggi na dex ka ba nga ko jéggee moom taaluuta huwa moom dafa cee bëgg a ataf de maanaam ismu saahir moo tax ma ne wala si nag ña nga xam ne amonoo gëm nañ maa woo ànd ak moom xaaloo ñoom ñu ne ko laa taqata déet kartan danaa ñu ñaal al yawma bi jaaluuta ci mën a jaamaarloog jaaluuta wa junóo dee ak soldaaram yu bëri ak seen ngànnaay yu ñaw yi xaala wax moom moom maanaam taaluta xaala wax na ko la si na ña nga xam ne yaxu te mooy ñi nga xam ne jékki nañ jax ka ne annahum naka ñoom mu laa ko laayi waay dajee ñoom yàlla ci dekki lañ wax ne kamin fi atin bëri na kuréel xallatan bu néew xalabat boobu not na fi atan këréel kuréel bu bëri de bi itin laa ci dëggalal yàlla yàlla maa saabirina an naa koy muñ ña ci ndimbalam de bu leen nañ dem kuréel bu ndaw naa gañeen kuréel suñu amee pas-pas te yàlla tax ñëw leen ñu dem gisoo yonantu bi kuréelam ba 313 la woon not yu ney nit kon kuréel bu ndaw yàgg naa gañee kuréel bu mag su fekkee am nañu pas-pas ndax ñetti téeméer fukk ñett ñu ànd pas-pas boo ko koo gëm yàlla mu dëggu ci ñoom lu ñu sémbu mën nañ koo daan lu leen sémbu mën nañ koo daan léegi nag départ nañ dara desul ña ngi ca géew ba war a léewoo rek dugg ca xeex baa ci des moo tax alquran ne wala maa barasoo ba nga xamee ne léewoo nañ li jaaluuta ak jaaluuta wa junoo dihi ak sondaaram ya pour war a xeex ñi sàppe ñoom ñëpp xaaloo la mbooloom julit ma bi wax ne rabbanaa yow borom afrique yàlla nga tuur alay naa ki ñun sabran ak muñ wa sabit yàlla nga dëgëral ak daamanaa suñ ndëggu mu ànd ak suñu xol yi ci jihaat ba buñ daw wan suur naa yàlla nga ñu dimbale xalal ci nit ñi kaafira nañu ñuy xéeféer julit ña moytu nañ xéeféer ya bisimilah ci digalal yàlla wa qatala rey na daawudu daawuda mi nga xam ne tabaarakallaahu moo jiite woon armée taaluta ba moo rey jaaluta jaaluta ma jiite woon armée bi xéeféer ya wa ataahu jox na ko allaahu yàlla almulka nguur ci banu nguur ga ci banu israil wal xikmata ak xam-xamu njariñ muy nubbootu ga gannaaw samwiil te lii mosta dajee ci kenn ku dul maanaam daawuda moom kenn rek moo ci dajale nubbootu tabaarakallaahu ak nguur waa moo xamal na ko mi maa yasaaw la ko soob moom yàlla ci ngëneelam de léegi nag jox na ko nguur ga tabaarakallaahu mu mu takk na jenn doomam ju jigéen ca ba tey taalu te séddoog naa moom genn wàllu nguur ga mu xilif ko waaye buur naka jekk day fiir ñemewuñ ku leen ku leen opposé bañ demee rek coow la ñëpp yëkkati ko daawuda daawuda lañ ko lañ ko séddal ñëpp ànd ak moom lam séddoo woon moom kenn tamit ya ca taw ànd ak daawuda loola nag métti ko fiir ko mu ne day rey daawuda nit ña wax ku ñëw di ko laaye biir moom taaluta mu far rey la ba la mu rey ci ay boromi xam-xam ay téeméeri téeméeri boromi xam-xam rey na leen ñoo xam nañ ko doon laaj bi ndax buur ñaareel day rëy du ko wax dëgg soo ko waxee dëgg rek mu gis boppam mu jigi nag yàlla kum namm ci yow ak defar mu toog jooy xelaat lu bon lim def dem ci armeel di jooy man torox naa fu ma jëm bu ma dee dem safar nangam ak mu jigéen nag ci lañ ko xamal ne ko li lay mën a sowe daal demal ca sam wi ma doon seen ak yonantu mi la dimbalee woon ba samp la nga nekkoon buur nga dem ci armeelam ba nga dem ci armeelam ba di jooy di toroxlu di toroxlu di toroxlu mu won ko nekk ne ko am lu ko feeñ ci jëmm wax ak moom ne ko lii ya tax yàlla nangu sa tuub nga takkaayuwaat ànd ak sa doom yi ngeen dem di xare ba ñoom ñëpp dee yow nga door a mujj ca xare ba mu ngi nag dem takkaayu di xare ji di xare ji nekk ca nekk ca ba doomam yépp dee moom moomu door a dee moo waral bi mu tëjjalee nguur gi gannaaw kii falu na ñeent fukki at la door a falu door a dee mu mel ni mu jëm mujj na baax léegi nag daawuda nag boole ñaari nguur yëpp nekk di buur bu boole yëpp nekk tamit boo nu boote ko risaal ga moom gannaaw taaluuta dund na juróom-ñaar fukki at man moo ci gën a yàgg door a moom tamit génn àdduna keroog nag ba nga xamee ne taaluta tabaarakalaaw dee na naafiq yi dañoo bëri bëgg ñu tooyal seen ab ceeb ak ñuy nëxal ñuy nëxal géej gi pour mën a dund ñëw ci daawuda ne ko maa ngi lay bégal sa noon bi la bëggoon a rey dee na mu ne ko yow ku bon nga danaa la xamal ne yow mi ma koy ñettali du du la jiitu àtte na nañ ko rey ndax yow mën ngaa tas am pénc ndax nit ñi dañoo bari ci ñooñu di dox ci kaw sëriñ yi di jaxase dugg ci diggante mbokk yi di yàq ba tey kër yi tas yëpp gannaaw yàlla lu mel nii moo ko tas moo tax daawu la ne kii buñ ko fi bàyyee mu yàq pénc bi kon noonu la defee rek jëlee ko fa léegi nag yàlla tofal ci aaya ji nga xam ne alquran dafa nekk ci dayoo toftale ne walaw laa dafullaahi naasa am ñu jàng walaw laa difaarullaahi naasa muy masdar mu daa faayal jéggi nasab mafaul walaw laa dafullaahi bu toppatoo na jañal yàlla anaasa nit ña baaduhum lenn ki ñoom baadin ci lenn li ko noonu la fasadati yàqu al ardu suuf walakin na laa li fi nekk yàlla suuf fa lin borom nga neen la alal ci mbindeef yi xam nga su fekkoon ne yàlla jañee utoon xéeféer yi ak seen bon geeg ñu mooy yàlla yi ci jullit ñi kon nit ñu ëppee ak niñ amee ngànnaay dañuy faagaagal wax nañ ni àdduna bi yëpp juróom-ñaari milliards ñu ciy dund ñoo ci nekk ci ay nit waaye ñi fi jullit ñëpp ñëpp ñëpp ñaari milliards lañ kon juróomi milliards yëpp gëmuñ yàlla maanaam amul nekkuñ ci diine lislaam ñii ay yahud lañ ñii ay nasaraan lañ ñii ay protestant lañ ñii ñeneen lañ ñoom ñëpp timi ñoo bokk genn làng rek ndax genn rek benn diine la yàlla rek mu muy diine lislaam waaw ñoo nga tey ni te boo seetee moyen yi ëpp jullit ñi yaafus nañ parce que yàlla dëxaloon nañu ñoo waroon nekk ca kanam waaye bu la yàlla dëxalee li lay tax nekk ca kanam nga nekk fii tëgg ak fecc ak di tàggante liggéey boo nekkee ca gannaaw yaa ko teg léegi nag ñu nekk ci yooye di caaxaan bàyyi li ñu waroon a fal ba ñu ne fa mu nekk ca gannaaw kon tey ñoo yore koom-koom bi ñoo yore ngànnaay yi ñoo yore fit bi ñooñu bu ñu yàlla jëngitoon seen kaw bu yàlla protégé wutoon ñoom ci ñoom ci ñun ñu daal suñu kaw mais yàlla nag moo leen na saxal ba duñ mën loola ñeen ngeen déerit wala laa difaawu laay naa sax contraire bala li fi nekk ni mu bonee man la juróom-ñaari milliards ñaari milliards gëm ci ñaari ñooy sababu yërmandeeg yàlla ba tukkalut àdduna alal nit waaye bu yàlla yërëmee toon ñaari milliards juróomi milliards kon ñëpp am waaye gis nga ko tamit gën naa jegewaat yàlla mu ngi rusee àdduna bi di ci taw di ci xéewale di ci jàmmal ci wëliyu yàlla yi bu taxutoon a yàlla yi yàlla rusee ñu li ko ñu ñëpp am ndax ñu manqué rek a fi ne lu mat newut fi waaye ñi yàlla matleek néew la ñu rusalee ñu moo tax Omar ibnul Xattaab wax na ne yonentu wax na ci xaddis ne inna laa la yadfa'u bil muslimi saalih an mi'atin min ahli baytin min jiiraanihi albala mu ne bi maanaam benn jullit bu baax yàlla dana ca dëgg téeméeri nit ñu xam ne dañoo bon yàlla waroon a wàccee ci ñoom mbas war a wàcce ci ñoom peste war a wàcce ci ñoom toskare yàlla rusoo kenn nit baax kon kenn nit ku baax kuy xeewee ndakaaru yàlla mën na cee dëgg sooy waa ndakaaru yépp ndax ndakaaru li ñu fi def ci ak mbon li ñu fi def ci ak caay-caay ak suñu Sénégal gi li fi nekk ci ay caay-caay bàyyee ko ca kaw ba ci ñu gën a suufe bu ñu yàlla ruseewutoon nit ñu baax ñi li ko doon nañu bu yàgg-yàgg-yàgg moo tax benn sëtu Seydou Nourou Tall mos na génn àdduna ñu suul ko fii ba mu tëddee mu ne daal Dakar dafa bëgg dafa bëri bur wi dafa feeñu benn nitu yàlla boobu maam Abdou ne ko Dakar dafa bur bruit waxoon naa bu leen ma fi denc samay nelaw yi sama tëdd yi dara baaxut ci lañ ko suul sulli fekk dara yàqu toon ñu yóbbu ko Louga kon nag néew nitu yàlla am kas bu demee ba gis loola tabaarakallaahu Dakar moom tabaarakal yeneen yeneen i mbir la la waaje waxoon Dakar réewam bàkkaar la réewam maanaam dëkk bàkkaar la bëri ci lool góor jigéen ñi ne fi posement ñàpp yi kenn xamul luñ toll ak yeneen yu bon yi nga xam ne kenn mënu koo nettali yàlla ne tilka aaya yooyu ma nettali aayaatulaay mooy aaya yàlla lu natluhaa danañu jàngatal ko alay ci yow yonantu bi bil xàq ci dëgg wa innaka naka yow la minal mursalina yaa nga bokk ci ñu de day delloo ñu ne kon lasta mursalaan doo ko ñu yónni yàlla déet wa innaka la minal mursalina beneen tilka gi muy tilka ñooñu ma tudd ci ay yonantu ca Muusaa ak maanaam Yuusuf ak Kaalib xisqiil ak samwiil ak arusulu ñooy yonantu yàlla ya ak ñu mel ni ñoom fadal naa gënal nañ baaduhum lenn ki ñoom alaa baxlin ci kaw lenn minhum am na ki ñoom man koo xam ne kan la ma waxee na ko laahu yàlla ku mel ni Muusa wa rafaa yëkkati na baaduhum lenn ki ñoom darajaatin ay daraja yoo xam ne moo ko jagoo lu mel ni mottali ak yonantu dëral xeetam yi ci mbooleem xeet yi tabaarakallaahu jox ko ay mu'jiza yoo xam ne xaalida lay doon lu mel ni alquran loolu mu yonent bi moo ko jagoo wa aatay naa jox nañ isa isa na maryama isa mi doon maryama albayinat lay layu leer nañ ya maanaam mën a dekkil ku dee mën a yëkkati yam daan def ak yooya waayat naawu dëgëree nañ ko bi ruuxul qudusi ci roxo gu sell ga muy jibril walaw saabu sooboon laahu yàlla mu gindi nit ñëpp li ko wante bu ñëpp gindee ko woon maxtatala du xeer li si nañu nga xam ne min baax lim nekk na ca gannaaw yonentu ci ay xeer min ba'di maa jaa'athum gannaaw boo xam ne dikkal na leen ay baynaat layu leer nañ ya ñii xeex ngir ak wuutee walaakin li fi nekk ixtalafu wuute nañ ci cooba rek yàlla fa minhum am na ki ñoom man koo xam ne amana gëm na sax ca wa minhum am na ki ñoom man ñoo xam ne kafara dañoo weddi comme nasaraan ya weddi nañ ak yahuud ya walaw saabu sooboon laahu yàlla maxtatalo li kon duñ xeex de walaakin laa li fi nekk yàlla yafalu mooy def maa yuridu lépp loo xam ne namu ko yaa ayyuhal laziina gaa yi nga xam ne aamanoo gëm ngeen anfiqoo na ngeen dundal mimmaa razaqnaakum ci leen xam ne wërsëgal nañ leen ko ngeen joxe ko ci asaka ak sax coobare min qabli an yaatiya njëkk bay dikk yawmun bis boo xam ne laa bay'un déet ngatu fii di nekk ca bis ba wala xulutum jaakeen xaritoo di jariñ ba man la jariñ moromam waxoon naa la ko wala safaatum du caakeen ak ramu di fa am lu dul ci ndigalal yàlla te duñ a ramu a dal xel bu ne woon waxaale mu ne woon kaafiroon kon ñëpp torox fekkoon ne kuy tooñ rek yéeféer nga li ko noonu ñëpp torox waaye nag yéeféer ya ñooy tooñkat ya moo gën a dal xel tooñkat yaay yéeféer ya kon gis nga ko yàlla ngoo yonantu yi ñëpp a xem nubbu nubbu wa doo palante ndax mbir la moo xam ne laajata gis sa ba duut luy xaañ waaye nag daraja mooy xëppalante yonantu yi xëppante nañ daraja ndax yonantu yëpp ñeneen i jéemal lim am ñu wax ne seen lim ba yàlla rek ko xam ñay jéemal lim seen lim ba wax nañ ne cent vingt quatre mille la waaye xamul daraja cent vingt quatre mille yooyu yàlla yëkkati trois cent leen ñu ëpp dara yu ñeneen ña ca des mi ngi mel tey bu leen poste ñaara fa ne ñiy poste leetar yi ak ñi yoon yóbbu courrier yi rusul yi nag ëpp dara ñoo ñu yóbbu courrier yi di yóbbu ko ci kër yi ñenn nga nag dañuy poste rek toog foofa kooku mooy nubbu watu am ñooy anbiyaaw yi nga xam ne dañ leen jox nu wëtu waaye nag ñoom digaluñ leen ñu woote rusulu yi nag mooy ñoo xam ne jox nañ leen ndigal jox leen risaalatu jox leen maanaam courrier yi ñu koy tasaare ci kër yi di ko joxe di woon nit ñi yaa moom leetar bi France la bàyyi ko nangam ak nangam ñooñu tamit li ñuy baax baax yëkkat gën a yëkkati ko daraja ñële am nañu leen gën a yëkkati ko daraja mooy ci seen biir yàlla tànn nga cent maanaam vingt cinq personnes vingt cinq personnes mooy ñaar tudd seen tur ci alquran ñooña ñoo gën a foor yeneen yonent yi ñu tudd ci alquran ñu tudd ci alquran yonentu yàlla Muhammad ci jiitu Muusaa nga ca Haaruna nga ca Yaquba nga ca Ilyaasa nga nga xam ne mooy Isqiil ak Yuusufa Yaquba ak ñu mel ni ñoom ñooñu ñaka ca ak Luut ak Daawuda di dem demeet ba may ñaar fukk ba man ñaar fukk ak juróom boo demee ci Xaadimu Rasuul way nañ ci benn téere def tawasul ki ñoom téere bu ñu tuddee Sindiidi yàllaaw bil Moustapha sin dii di yàllaaw ba ba mu jeex léegi tamit ñaar fukk ak juróom ñooñu am na ñu gën a yëkkati waa daraga ci ñoom mooy jox téere tudde leen ulul azmi nga xam ne mooy yonentu yàlla Noox Ibrahim Moussa Isa sayyiduna Muhammad moom la yonentu bi yàlla waxoon na ko asbir mooy juróom ñooñu ñoo ngi am na ku gën a yëkkati ko daraja te ko kenn du ko gën a yëkkati ko daraja ba péncam yàlla mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa kon moom mooy tànneefu tànneefi tànneef boo ko seetee mooy première yu première yi première yi kooku mooy Seydina Muhammad aaya bii ñu war cee teg nag moom lañu tuddee aayatul kursi yi moo gën ci aaya alquran yépp alquran nag bu fekkee kenn ko wax di yàlla kenn waxam mënta gënante mënuñoo wax ne maa wax lii ñu ne sa wax jee gën ji waaye xam nga wax ji bu gënee ji ni ñu koy mën a déggee mooy la nga wax fii moo gën a foor la nga wax fële loolu xam nga xam na ci nit sax nga def conférence fii ñu ne ah sëñ bi dee wax dëgg yàlla conférence bi moo gën ba nga def fële te pourtant yow kenn yëpp benn benn salaam yi ma la génne waaye thème yi dañoo bokk ndax wax ak football ñoo yem football bi walla sax bu la neex nga ne ak bëri comme léegi moo xew ndax ndawi Sénégal yëpp seen yaakaar tas na ba mooy ñaar ndaw liy musique ak ndaw liy bëri ñoom visa yomb na leen bu fi doxul tamit dañ mën a te ku ci am ñaari combat rek télé bi génne la boo ñaanee message ñu may la ku fi nekk tamit doo dara dem fexe ba way fi ñaari clip rek tëgg ak rek boo ñaanee message ñu may la loolu tamit ñu sàggan ñi comme ñoo gën a bëri mën nañ la caa jox dara su ko defee kon léegi-léegi nit ki nekk borom xam-xam waaye ni mu gisee tey ci waxtaanam dafay wuteeg na mu gisee ëllëg nit ki tamit dana nekk mbër mbër waaye ni gisee ci combat bi bokkul ak na gisee combat ba bi tamit noonu kon tamit yàlla moo waaye waxam yi dana am foo xam ne nam fa waxee mu dajale ay turam bàkk ci boppam maanaam yëkkati fa ay darajaam dàq fa lu bokkul ci moom saxal fa lu bokkul ci moom waxeewul ko feneen moo tax ñuy wax ne ay sàngam a gën ay sàngam wala ñu ne saar sàngam a gën saar te fekk loolu lépp ki ko wax kenn la aayatul kursi li mu dajale dafa niwul ci beneen aaya moo tax ñëpp dëppoo nañ ne moo gën ci aaya yi mu nekk aaya boo xam ne tabaarakallaahu li mu làmboo dafa bëri làmboo na ndeyi masala yi yuy tegtale sax ak maanaam matax yàlla ga ak dàq ak wàññeeku ci yàlla moom saar wi nag li ci moom aaya bi li lim root li ci nekk ci ay ngëneel bëri na kenn mënu koo takk waaye rek pour mos mos mos ci ak mosal leen ci wax nañ ne képp ku génn sa kër jàng ayatul kursi yaa ngi ci garante ak yàlla fekk ba ngay ñëwee assi maanaam yaa ngi am am nga daal am nga assurance tout koo xam ne jamono ji ngay ci nga jàng ayatul kursi yàlla dana la wattu ba nga ñëw doo am benn problème oto nga dugg avion la dangaa dox danga da dugg saxaar yaa xam kon léemu la bi ci ëpp doole nag ca léemu nga mooy booy dugg sa kër booy génn sa kër nga téye sa bopp sa loxob càmmooy nga teg ko ci sa bopp jàng ayatul kursi boobu moom garanti la boo xam ne yàlla rek moo xam nam doon ba tey tamit wax nañ ne ku jàng ayatul kursi ci gannaaw julli bu nekk fexeel julli boo sëlma rek jàng ayatul kursi wenn yoon dee moo la xëy dugg aljana booy dee rek dugg aljana kon nañ koy jàng ayatul kursi tamit kër buñ koy jàng kër gu ne bala ngaa tëdd jàng ayatul kursi fanweeri fan seytaane du fa dugg njabarkat bu góor ak bu jigéen dana fa sori lu man ñeent fukki guddi kon moo taxoon yonent ne woon yow Aliyu na ko jàngal sa doom yi jàngal ko sa soxna yi jàngal ko say dëkkandoor yi aaya la boo xam ne li wàccagum moo ci gën a foor li wàccagum te ñëwagul tamit moo ci gën a foor li ma jotagum daal moo ci gën a foor li ma jotagul tamit aayatul kursi moo ci gën a foor kenn du yonantu bi ba tey aayatul kursi ku ko jàng jamono ji ngay tëdd nga léemoo ko waxuma sa bopp da nga ci am sécurité waaye sa dëkkandoor yi dëkkandoor yi da nga mën a xaaraale daaru salaam xaaraale maanaam dari foor xaaraale maanaam euh, li ko li la wër rek maanaam sa quartier beeg li wër sa quartier quartier yi ñu takkaloo yëpp benn quarante mën lay tudd kon man ngaa jàpp ne mooy sangi wax yi alquran moomu di sangi wax yi suratul baqara mooy sangi saar yi ayatul kursi yi mooy sangi aay yi dégg nga de ñun jibril wa minha ma warada annahu nasala jibril ala musa wa qaala lahu rabbuka yaqulu laka man kaana aqaba kulli salaatin allahuma mu ne jibril wàcc na ci yonentu yàlla musa xam naa tijaan yu bëri ak ñi may déglu borom xam-xam yu bëri dañ koy def buñ julee ba sëlma rek ñaan gi la ñu jàng allahuma inni uqdimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa laxatin wa tarfatin yatrafu biha ahlu samawat ahlu samawat wal ardi wa kullu shay'in fi ilmika kahin boo ko jàngee door a jàng ayatul kursi yu wenn yoon su boobaa dee moo la tere dugg aljana te dañ lay tànnaloo ci boo bëgg nga dugg ci te lii boo ko jàngee danañ la bindal yoola yool boo xam ne nam tollu yàlla rek boo waxee yoon ba sax ñu bari lañ koy jàng far moom bi dootu ne ah def naa lu baax dootuma defati ayatul kursi yu mooy allahu laa ilaha illa huwal hayyul qayyum ila ba ca mujj ga dañ lay bindal boo ko seetee waxtu yi ñeent fukki waxtu la ak ñaar ñaar fukki waxtu ak ñeent vingt quatre heures saa bu nekk nag sa jëf day xéeg dana xéeg di ko xéegal juróom-ñaar fukki junne yi dañ la ko xéegalal par heure ku jàngee ni ma ko waxee nii waxtu wu ne maanaam waxtu wu ci nekk juróom juróom-ñaar fukki junne yi dana xéeg du wàcc donte wenn yoon koy jàng ko jàng nag gannaaw julli bu ne fukki yoon ak ñeent moo tolloog faslu ya su boobaa maanaam yàlla dana def alam bi yëpp bëgg la lu yàlla bëgg lay bëgg alami suuf luy ak xol wi lu la gis bëgg la ku ko jàng moom ay ko kursi li mu yonantu ya mooy ñetti téeméer ak fukk ak ñett ko yàgg la li mu yonantu yi mooy li mu badar mooy li mu timit maanaam taaluuta ca ca soldaaram ya su boobaa njàqare goo mën a am yàlla dana la ko teqaleeg moom loo jàq ba tax nga jàpp ba sell jàng ayatul kursi 313 njëkkee 3 def 10 door a def bi maanaa ah, ya ca des ñetti téeméer yi njàqare ga moom jeex na bu ñu la bu ñu la waxee ne a àtt ni bu subaa ngi tëj la tamit dara da danga ci génn dara ku ko jàng tamit li muy xarafam ya ayatul kursi boo li boo calculé xarafam ya téeméer la ak juróom-ñaar fukki xaraf kooku moom dootoo dangati maanaam ci teraanga yàlla ak xéewal kon nag ayatul kursi lu ci nekk ci ngëneel kenn mënut a nekk di ko wax waaw ku ko bind tamit li mu baatam ya mu nekk juróom fukki baat feebar bu nit feebar bu ñu la ko indilee doo ko ko naan dana saafara kenn mënu ki dara lu sa lu feebar rëy rëy rëy nga bind ko loola jox ko nit mu naan ko insha allahu rabbi yàlla na ko saafara kon aayatul kursi lu ci nekk ci ay ngëneel buñ doon wax fi la ñuy noor te mu jeex mu aaya bu fort la bu bëri ngëneel la nañ koy xëy di ko léemoo bu ñuy tëdd tamit léemoo ko bu ñuy génn suñ kër yi génn tamit léemoo ko suñ ko mënee jël jël suñ loxo càmmooy teg ko su ko defee tamit luñ bëgg a def luñ luñ bëgg rek yàlla mën a ko sotti yàlla yàlla wala mosul ñu moo tax duñ ko ubbee ne allahu yàlla laa ilaaha benn buur illaa ndere moom alxayu mooy aji dund ji nga xam ne dund jiituwut dundam nga te tamit du ko mujj alqayum mooy kiy toppatoo mbiri jaamam yi di settantal seen mbir mooy buur bi nga xam ne laa taaxuzuhu du ko roofu sinatun ngëmentu wala nawmun sàkkaa nelaw yàlla du gëmentu sax wooma la bay nelaw mooy buur boo xam ne lahu aji nekk la ñeel ko maa fi samaawaat nekk juróom-ñaari asamaan wa maa fi ardi ak lépp lu nekk ci juróom-ñaari suuf yàllaa ko moom man sa lasi ana kan kaaka yasmau dana rammu indahu fa moom illaa bi isni ndere ci ndigalam kuy rammu ëllëg ci àllaaxira ab yonantu nga waliyu nga nit ku baax nga ndigalal yàlla rek ngay rammee ya'lamu mooy buur boo xam ne xam na maa bayna aydihim li nekk ci kanam jaamam yi wa maa xalfahum ak la nekk seen gannaaw li weesu xam na ko lii ñëw tamit xam ko wala yoxituuna mooy buur bi nga xam ne duñu peeg bi sayin ci lëf min ilmi ci xam-xamam illaa bi maa shaa la ko soob li ko soob nag du ñu xam lépp lennam rek lañ mën a xam ci moom mooy buur boo xam ne wasaa hëpp na kursi yoo gàngu naayam nga asamaawaat juróom-ñaari asamaan wal arda ak juróom-ñaari suuf boo ko jëloon jël ko ci kur boo jëloon asamaan ak suuf tàqarte leen tàllal leen sànni ko ci kursi yu day mel ni jaaroo boo sànni ci àllab kerte nga jël maanaam kursi yu ak asamaan ak suuf sànni ko ca aras aras mel ni mu mel ni jaaro boo sànni tamit ci carte rek kon yàlla ku bëri la léegi nag bu bëri ne da nga wax ne yàlla mu bëri le ndax li mu le mën na koo wattu mu ne akay ah wala yow doo tiisut ko xefatuhumaa wattu leen ñoom ñaar wattu asamaan ak suuf ak kursi ko aras maanaam wattu maanaam jaaxalu ko de ndax fu ne bëtam ma ca tege waxuwa moom nguur bi al aliyu mooy ki nga xam ne moo ci nguuram alxasimu mooy ko kon gis nga ko ayatul kursi yoon lii rek sax firi mi dafa daw yaram lu ñuy soxla lépp làmboo na ko yàlla ku bëri le la ku bari njaboot la waaye ku am dépense bu doy la kenn ku ne tamit fa ngay jëlee dépense ak fa nga koy dugal yëpp moom xam na ni mu bëree njaboot ni la xam ni njabootam toll moo tax bu nit nekk ci jafe-jafe ba foog ne yàlla fàtte la yàlla fàttewut kenn bis bu dee jotee ngay xam ne yàlla fàttewut la waaye léegi léeg day nekk ci ay problème mën naa nekk sëyam mën naa nekk ci diggante ma jëkkëram diggante moom njabootam problème mu liggéeyu waayam mu nekk fu ne mu dugg bu gëmul yàlla si day fan yàlla da koo fàtte waaye yàlla fàttewul kenn lu ne moo koy wattu moo tax yu yàlla Moussa mas naa laaj yàlla ne ko waa yow yàlla nooy nelaw yàlla ne ko ah, man ngay laaj bu may nelaw moom déet kaay ñëw mu yëkkati ñaari kaasu weer yu mu def ndox ne ko téyel bi ci ndeyjoor téyel bi ci càmmoñ nga téye leen Moussa téye ko ñetti fan rek daal di nelaw ba mu nelaw rek ñaari kaas ya fàddante mu toj yàlla ne ko nag man mi taawu asamaan ak suuf su ma nelawaa su ma nelawaa wàcc ñaari dajee al alkande am ci ñëpp man kon du ma nelaw yàlla la boo gis muy nelaw dafa manque yàlla ko mat la ndax dañoo manque ngay doon di kër rek da tawa daw ba sonn rek nga tëdd nelaw moom laay wax doomu aadama jëmul fenn moo tax loolu yëpp rek fenn mu nekk doomu aadama fenn la jëmut li lay xamal ne jëmoo fenn te nga xëyee li nga jëkk a def rek mooy dugg fudd dugg ci wanoo wi sangu sol sa yére génn nga ne yaa ngay xëy léegi-léeg nga dox a dox ba si yàgg nga toog toog toog ba si kanam nga jugaat taxaw taxaw ba si kanam nga tëdd ca ngay nekk ba jant bi soo nga tëddaat sa lal di jaaxaan bu ba si nga xëyaat nekkaat ci su ko defee kon nag fenn yooyu fexeel mu jëm ci yàlla rek boo ko defee rek noppi waaye bu jëmul ci yàlla rek nga gën a perte kon yàlla ngoog li muy bëri li nga la mën a waxtoo am dara lu ko réer kulliyaat yeeg juz'iyaat yëpp xam na ko amul benn détail aaya bi nag wàcc aaya boo xam ne yàlla dafa bëgg a wane diine duñ ci forcé kenn ku ñu tuddee abu xuseyni moo amoon ñaari doom benn doom ja dafa nasaraanu gannaaw bi ñu yónnee yonentu yàlla muhammad ba ñëwee madina di jaay si dégg de léegi seen bàyyi dajeek ñoom pour bëgg leen a woo ci lislaam bëgg leen a forcé nag ci lislaam mu ñëw ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee nag aaya ji wàcc rak yàlla wan ko ne kon lislaam duñ ci forcé kenn dañ ko bàyyi leen yoon bu leer la kum neex kum neex nga bàyyi kon nag rawatina maanaam tariqa yi jëlul propagande kenn bàyyi nit ki ko doy rek dem ca waaye jéem a propagande ni dalay sonal rek moo tax alquran ne laa ikraha déet ak forcé fi diine ci diine ji xatta ba leer na arus du njub minal xay ci réer de waaye li wér te wóor daal fa man képp ku weddi bi taaxootu ci xiram yi muy saytaan ak li ci xaju wa yuminu mu dëggal bi laay ci yàlla koo ko defa xadis tamsaka ngëb na bi la orwati ca buum nga alwustaa ngay aji dëgër goo xam ne buum goo xam ne du dagg mukk lan fi saama dita ferañtiku lan fi saama dita dagg laa di ñeen buum nga wallaahu yàlla samiyoon aji dégg la wax yi alimun aji xam la jëf yi allaahu yàlla waliyu la si na mooy aji méngoo ña nga xam ne amonoo gëm nañ yuxrujuhum mu leen di génnee mi ne xulumaati ci lëndëm yi muy lëndëm ak xéeféer lëndëm ak réer lëndëm ak bokkaale ila nóoru jëmee leen ci leer gëm yàlla waaye wala si na nga xam ne kafaroo weddi nañ awliyaahum ñe leen méngoo taaxootu mooy xërëm yi ak saytaane yuxrujuhum noonu dañ leen di génnee mi ne nóoru jëlee leen ci leer ak gëm yàlla ila xulumaati jëmee leen ci ay yàlla contraire ba lay def dalay fekk nga bon mu baaxal la keneen kooku nag perte la moo tax bul sonn booy topp toppal ku lay baaxal waaye koo topp mu nar laa bonal rek ban ko gannaaw li ko may boo liggéey ak moom it ngeen bokk ji jamono sëriñ yi bonal nit ñi ñoo ëpp ñuy baaxal nit ñi parce que bala ngaa man a baaxal nit day fekk nga baax bala ngaa mën a defar nit day fekk nga defar waaye li ëpp ji jamono defaroo moo gën a bëri defar ku defar wut mënoo defar kenn maam laa jàpp laa gis ne bala ngaa mën a defaree day fekk nit ki bu sukkee ci sa kanam nga xam fi mbaaxam gi tolloog mbonam bi ci foofa la ngay door a mën a defar bi foofa tamit ngay door a maanaam a fekk sa maqaama xeggagut foofa war lekk addiya bu sa maqaama tamit mën a koo nag tabaarakallaahu defar yombut defaroo moo gën a bëri kon nag aaya yaa ngoog aaya bii tegu ci yàlla ngi ciy jàngale xisa bu yéeme bu daw yaram boo xamee dafa doxoon ci diggante Ibrahima ak buur bu kàccoor bu ñu tuddee Namruus Namruus ku kàccoor la woon moo doon Namruus ibnu Kanaan yaayam da koo ëmboon doomi njaalo la ngir ragal nguur ak baayam nga sànq ko Kanaan mënutoon a sëy waaye buur la woon yaay ji nag yëg ne su fekkee ne sama jëkkër ji génn àdduna te doom am nguur gi day toxal mu jàppandal boppam ci ab sàmm mu juddu ca léegi nag ñu foo ne bàyyi ma ko moom ki njëkk sol mbaxanaay buur yu guddi yi nga gis ñuy sol yi leen génnee ci télé yi muy mbaxana muy bëgg laal asamaan mooy ki ko njëkk sol ngir bew Namruus mooy ki sànni woon yàlla Ibrahima ca safara wa Namruus mooy ki nga xam ne bokk na ci ñeent ñi mos a moom adduna bi yëpp adduna bi bi mu sosoo ba léegi ñeenti buur ko mos a julif penk ko sow ñaar ña jullit ña mooy Namruus ñaareel ba mooy Buxtu Nasar jullit ña mooy maanaam Suleymaan ibnu Daawuda jullit la moom mën adduna bi ak maanaam bu ñu tuddee Zul Xarnayni moom nga jàng ci suratul Kahfi mos naa moom adduna bi yëpp ñeent ñii rek bu ko moyee nag koo waxati buuram nga benn gox la ñenn la ci aw nit léegi de ñeenteel bi xanaa mooy américain yi ñoom day liif nañ àdduna bi waaye ci système ba tax na tey ñi fi nekk tamit ay buuri su xusmaa ñàpp rek lañ américain yi ñoo leen yilif lañ bëgg def nit dañ ko ba fexe ba def ko benn gi suñu mii tay boo demee tey seen ambassade ba tali bi nga xam ne ñoo ko moom sax baare nañ fexe ba jënd ko ñu tekkee duñ ci dara Namrus mii nag dafa notoon nitam ñu ne mooy moom moom àdduna bi mooy seen buur mooy seen yàlla teel a ñor wax yaayam ne ko waaw yow yaay man mii kuy sama borom mu ne ko yow man maay sa borom mu ne ko yow nag kan mooy sa borom mu ne ko sa baay mooy sama borom mu ne ko sama baay kan mooy boromam mu ne ko Namruus mooy boromam mu ne ko Namruus kuy yaay ja pes ko ne ko laaj nga lu rëy kenn loolu kenn wul koo laaj Ibrahima ku reexel la léegi nag loolu xëy na la revue de presse yëkkati ko li xale bi laaj jar naa laaj kenn ku nekk def ko premier titre li xale bi laaj robinet ba di ko roote teen ya mbedd ma li xale bi laaj ah kay mën naa laaj dañuy ne jarta laaj coow la bëri léegi nag ban mel ne ba nga xam ne léegi ñu ne kon nag kon coow li bëri na ki moom coow li na leeral na mbuus taxaw war a woo nag war a woo Ibrahima war a jaamaarloo moom ci wax naka jekk wax ju nit wax ju ñor yàgg naa daane nit mu ne ko waaw yow da wax ne yaay xilif nit ñi yaay sa borom yaay boromi nit mu ne ko waaw kon léegi ndax man ngaa rey mën a dekki man de borom bi may jaamu yaakaar ne moom la ñu war a jaamu mooy koo xam ne moo mën a fekk kuy dund mu rey ko moo man a fekk lu dee mu dekki ko mu loolu yomb gis nga ñaar ñii ci kaso gi nekk maa leen tëjoon peine de mort laa kenn kaa ngi nii kon naa ko rendi ko keneen kaa ngi parce que ñoom ñaar ñëpp dañoo waroon a dee kon de kenn ki rey naa kenn ki mu ne ko noonu li may wax nii du yàlla waaye nag nekkuma fa di discuter sama borom bi ma lay woo mooy ki jëlee jant bi ci penku bi moo ko indi nii ba ci digg asamaan wala ci xarfu bi maa bëgg yow nag ko fii fa bu hitale fii kafar waxee rek waajee géej ci xamatu lu mu cay tegati parce que jeex na loolu moom coow mënutu caa nekk loolu la yàlla wax si moo tax mu ne ko alam a xanaa xéegul sa xam illa la fii dem ci waaja nga xam ne xaaja dafa dàggi xante ibrahima ibrahima fii rabbi ci mbiri boromam an ataaw ngir lim ko jox laahu yàlla al mulka nguur di ko yàlla jox nguur a tax muy toog di bàkku bokk ci ñu mësa moom adduna bi is xaala ba waxee ibrahima ibrahima ne rabbi sama borom la si mooy ki nga xam ne yox yi mooy dundal wa yumiitu mooy rey mooy fekk kullu dee mu dundal ko mën a dekkil tamit tabaarkàlla xaala wax nag moom na mu rus ne ko anaa man wax yi dinaa dundal wa umiitu maay rey mu oo ñaari nit ñu tëjoon ci kaso atte woon ci ñoom peine maanaam pan peine de mort rey kenn ka di maanaam bàyyi kenn xaala wax ibrahima ibrahima ne ko nañ baxi loola léegi nag ina laa naka yàlla yaati mooy moo indi bi si jant bi minal masriqi jëlee ko ci fenkuwaay bi kon nag yow fàtti na nga indi bi haa ci jant bi minal maxribi jëlee ko ci soxowaay ba buy bii baax na bu beneen jant baax na waaye ba ko waxee lii buxita ne tocc la si xam ne kafara weddi na fa buxita gëlëm na la si nga xam ne kafara weddi na léegi nag mu ne tocc xamatul lu mu cay yàlla tofal ci ne wallaahu yàlla laa yahdi du gindi alqawma nit ña zaalimi na ña day tooñ de ku gindi koo xam ne dangay ngay tooñ doo am lay wujju doo xamati foo jëmati dañoo jege nag moo xisa bii ndax yépp ci dekkil la beneen bi nag dafa am kenn nitu yàlla ku yàlla mayoon koo xam ne tabaarakallaahu ñu ngi koy tuddee Useyru yowool yi sax dañ koo gëm a gëm a gëm ba di ko jaamu ne yàlla la comme ni nasaraan yi jàppee ne Isaa yàlla la ñenn ngi ne Useyru doomi yàlla la ñenn ngi jàpp ne Iisaa doomi yàlla la ay kuréel la ci ñoom moom dafa mës a tukki moom moom Useyru ibnu Sharqiya bokk ci banu Israil am na ñu ne yonantu la ñenn ñu moo gën a siiw na sax ñu wax ne góor la koo xam ne gëmut yàlla rek a xam dafay dafa doon dafa weddi woon yàlla di weddi tekki ba yàlla namee nag pour jubal ko la ko wan nañuy dekkile mu tukki rek ñëw baytul muqaddas fekk buxtu nasar raaf na ko mooy ki ma la wax ne mooy ñeent ñi mosoo àdduna bombar dañu fa nekk yépp ba tas maanaam jàkk ja tasaare ko tas boo ko saxel nekk ba xamari ñu xattaam ma tabaxaat jàkk nag jël taw taw rek tasaare ko nit ñi di ci saw bu bon bi mu ñëwee fekk dëkk bi ràpp mu ne waaw yàlla ndax mën naa dekkilaat dëkk bi dëkk bi ni mu rafetee woon mbedd yi tali tabarkaal point yi ak dëkk bi def nañ ko canalisation ndax dëkk bi mën naa mel na melaatoon ba mu waxee loolu yàlla rey ko ba ko yàlla reyee nag dekki ko fekk am na fu téeméeri at mu dekki nag yàlla laaj ko mu ne ko maa am benn fan wala maanaam genn wàllu fan ndax biñ koy dekki biñ koy rayal heure bi suba gi biñ koy dekkil ngoon la mu fane fan boobu jant baay dox bi sox léegi nag léegi moom moo mën a lay wax si nii moom lay wax si nii moo tax mu ne aw kalasi wala waa ni ki waaja nga xamee ne mara dafa romb ala xaritin ci dëkk muy muqaddas fekk ma nga war mbaamam ma waxiya fekk moom dëkk ba xaawiyatin aji la ala urusiya ci ay kanam ya xaala muy wax bihee mu ne ana yox yi naka lay dekkilee haadihi dëkk bi allaahu yàlla baada a gannaaw dee xam fa amaatahu ray na ko laahu yàlla mi a amin téeméeri xat su ma fii xaala mu ne labistu sax yow man bis aw baada yawmin wala genn wàllu bis xaala sama borom ne ko balli fi nekk labista sax a mi ata amin téeméeri xat fansur na nga xool ila taamika jëm ci sa ñam wi te muy figg gi wa sharabika sa naan wi muy resin bi lam yeta mooy soppeeku wansur na nga xool maanaam maa ximaari ko jëm ci sa mbaam mi nga xam ne dafa dee moom tamit ba yax ya fën léegi na yàlla di ko dekkil muy xool na mu dekkee wala nañ xale ka ngir ñu def la ay tan ngay kaawteef ci dekki wansur xoolal ilal isaam jëm ci yaxi mbaam mi kay fa nun siroha naka lañ koy dajalee am ñu jàng nun siroha waaye su ma nako suwaa topp ñu ñu xoddee yax yooyu ya dajee ñu ñu xoddee ko man yàpp léegi nag bañ ko xoddee yàpp nag mu suux mu taxaw fala maa tabayyana ba nga ne biir na la hoo ñeel mu xam naa ne ana laa naka yàlla xaadiru aji xattan la alaa ko seen ci lépp lëf yàlla ray ko ray mbaamam ma ñamam sax foroxu téeméeri xat ñam woo xam ne ni mu doon bu doon boisson yi soppeeku tabaarakallaahu mu jub xool ko foroxut mu foog ne genn wàll am wala fan bay door benn fan la fi am mu xool mbaam ma tamit fekk mbaam ma dee na ba yax yi fanoxii yàlla jël Yaxya dajale ko nam war a mel door a jël moo tax Useyru moomu bi ko yàlla dekkilee gannaaw bi mu ko reyee lu mat téeméeri at mu waawu dem këram ba mu demee sax fekk fa mel na màgget mu laaj ko ne ko ndax fii mooy kër Useyru mu ne ko waaw waaw waaye Useyru moom de biñ ko ñàkkee léegi yàgg na lool mu xamal ko ne ko man mii maay Useyru màggeel man dafa gumba ko paralysé mu ne ko Useyru de ci moom nangum ñaan bala maa gëm ne yow la nag ma ñaanal sama bët yi man a xool ba gis la Useyru ñaanal ko rek màggeel ma gis kon moom ko am fayda la wan na ko ne bala maa xam la yow la du moom daal nañ ko njëkk a ci ñaan gi mu xool ko ne kii de mooy Usayru fekk na booba sax ay sëtam màgget nañu waaye am na ci doom juy dund bañ ko ko waxee ma nga màgget mu ne ah sama papa de amoon na benn xaafu maam yàlla ci gannaawam ci wetu poqotaan ba bañ ko dindi rek fekk ko ca mu dëggal ne mooy Usayru dëkk ba yépp dajee loolu nag boo gisee yàlla def ko koo gis mu dee dekki te àllaaxira jotagul na nga yëg ne ñaar a tax benn yàlla da ko rey rey jéppi wala mu rey ko rey boo xam ne dafa bëgg ñi nekk ci gannaaw ak ñeneen ñëpp man cee xalam Usayru dekkeem googu ibra la pour ñi man cee xalam waaye ñeneen nga xam ne moo doon nit yi Moussa ñamu rayoon ñooñu yàlla di leen jéppi woon bi ñu waxee lu rëy ne arina laaha jahratan waaye ku sa diir xas dee jot buñ la rayee dootoo dekkeeti lu dul àllaaxira ba ñëwee mu woon ne fekk ñoom tawreet sànq nañ ko xamatuñ ca dara Usayru moo mujj mokkal ko ñi bindaat ko defar ko kon gis nga ko yàlla ngoog ci kartanam lu tëreewul dara lu mu bëgg a def rek mën na koo def moo tax nag yàlla di wax si nii beneen xissa boo xam ne mi ngi dox ci diggante yàlla ak ibrahima moo tax mu ne wa fàttalikul iz qaala ba waxee ibrahimu ibrahim ba mu waxee ne rabbi yow suma borom ari nii wan ma kayfa tuxyi naka ngay dekkilee almawta way deeña qaala sama borom di ko laaj ne ko awalam tumin xanaa dangaa gëmut sama dogal ak sama kàttan ci mën a dekkil ku dee xaala ibrahima ne ko balaa hakkay gëm naa ko de walakin li fi nekk laaj naa la ko liet ma inna ngir na dal xal bi sama xol damaa bëgg bàyyi ko ci ilmul yaqiin mën a ñëw ci yow ci xaqul yaqiin yégg ci ba yégg ci aynul yaqiin xaala sama borom ne ko fa xuf na nga jàpp arbaxatan ñeent mi na tayri ci njanaaw yi fa surhunna nga mo ngete leen daggate leen iléegi jëm ci yow su ma jaxal topp nga def ala kulli ci bépp doj min hun na kat yàpp yooya nga mu ñete woon jaxase leen bis un xaaj summa doxu na topp nga xooleel yaati naka danañu dikkal la saayan di way gaaw waxlam nga xam ne ana laa naka yàlla asisun ku not la ci nguuram xakimun tamit ku xereñ la de ibrahima def na ko ni ko ko yàlla digalee jaxase na yàpp yaa dunku ya jël ñeenti doj teg leen ca lii mu teg fale sàmbale mu teg ko fale ba muy ñeenti doj léegi nag ba mu xootee ci kartanal yàlla yàpp wu dem sofu ci moromam ma kenn ku nekk ba nga bàyyi ko woon ak fa nga fa neexee woon rek nga delluwaat fa Ibrahima nag yéemu lool gannaaw bi nga xamee ni gëmoon na ko ci gëm boo xam ne bët mayut ko ko woon tey nag bu ko bëtam mayee gën naa yéem boo seetee ni yàlla waxee ko Usayru ak ni waxee Ibrahima duñ benn ni waxee Ibrahima gën a foor bu muy wax ci Usayru dafa ne aw kalladi marra ala qaryatin ba muy wax ak Ibrahima dafa ne rabbi arini kayfa tuxil mawta ndax mbiram Ibrahima moo gën a foor moo gën a màgg Usayru li waral Ibrahima tamit di laaj nii dafa romboon tabaarakallaahu ci genn tefes maanaam njanaaw ay njanaaw mu fekk fa méddam nit am na ñu ne médd ma sax mbaam la am na ñu ne jën la ba mu ñëwee gis ndeg mentee te mooy ya ak picc ya ak tan ya ñu mel ni ñoom ñu say lekk Ibrahima nag ba kanam sopp gis dajaleeg yàlla ci loo xam ne lu dee la woon ba tasaaroo suma borom nag man ko ne ko man de ku am kartan laaj dege ci dajale lii moo taxoon nag mu taxaw di laaj ñenn ngeen ne déedéet li ko tax di laaj naan arini kayfa tuhyil mawtaa mooy bi mu tàgg sànceeg Namruus ba not ko Namruus Ibrahima wax ko mu naan ko rabbi lazi yuhyi wa yumiit na ko na ko Ibrahima waxee ba ko Namruus ne ko ana uhyi wa umiit léegi nag Ibrahima gannaaw bi Namruus waxee ñaari nit ñoo xam ne dañ leen a waroon a rey ñoom ca kaso ko ni mu la ko waxee woon mu jéggal kenn ka rey kenn ka Ibrahima ne ko lii taxut may wax waaye bàyyi ko tuxuluwaat ci beneen lay léegi nag la Ibrahima nag bëgg xam bëgg a gis naka la yàlla yi dekkilee mën caa teg bëtam mën a bàyyi yàlla utloo ko ñeenti rab ñeenti njanaaw kenn ku nekk ñeent yooyu dafa am lu niru doomu aadama ñeent ya bokkoon na ca tan bokk na ca jàmm jóob di tuddee taawus bokkoon na ca baaxaañ ak ganaar boo seetee tan dafa niru doomu aadama ci bëgg lekk ak naan fu mu lekk ak naan rek doomu aadama ku bëgg lekk la ak naan tax léegi-léeg am ñu def ba njogonal taawus dafa niru doomu aadama ci bëgg a daagu bëgg àdduna bëgg rëy lu bëgg ku ko yéem bu amee ndomb tànk bëgg ñu xam ko fu mu dem boo ko présenté wut mu gis boppam baaxaañ dafa niru doomu aadama ci xiir du doylu lu mu am ne ca kanam doomu aadama dafa xiir ba biiram ni ko yonent bi waxee suuf rek moo ko mën a fees laa yem nawu batna aadama ila turab ganaar dafa niru doomu aadama ci bëgg sëy moo tax foo ko fekk rek ma ngay sëy ñoom ñii nag kenn ku ne am jikko jum niru doomu aadama moo taxoon yàlla tànn looxoon ko ñeenti ñooñu mu daggate leen gannaaw bam leen rendee jaxase seen yàpp ya jaxase seen dunq ya teg ko ci ñeenti doj yu wuutee waaye nag ba ko yàlla ne ko xooleel rek ba mu leen wooyee ci kartanam yàpp wu nekk dem ànd ak moromam ma dunq wu nekk dem sax ca fa mu saxoo ibrahima nag yéemu xam ne yàlla kartanam daal tële ko dara xamoon na ko waaye nag mu mën cee am lu ñu tuddee aynul yaqin gannaaw bi mu bàyyi ko ci aynul yaqin léegi nag yàllaa ngi wax ñi nga xam ne dañuy dundale seen alal te fekk yàlla moo tax ngistaluñ ci yàlla rekk a tax ñu koy def ku mel ni Usmaan ibnu Affaan ak ku mel ni Abdurahmaan ibnu Awf nga xam ne keroog ba yonentu bi laajee xare war a dem Tabuuk tawfeex yi joxe ne rendez te loxoom jotul gannaawam te nam ko bëggee woon Ousmane moo xaddu junney gëléem yu manqué juróom fukk la manqué mu mattale ko ay fas ci waruwaay yu ànd ak seeni teg ak la ci aju lépp boole ko junney dinaar yu bi téye xaalis ba di jàllar bi teg julli jee naa fi la def safaa witar fanaan di ñaanal Ousmane ba set keroog la wax ne maa darra Ousmane maa faala baadal yow bi gannaaw bisu tay bii amul dara luy mën a lorati Ousmane kon gis nga alal baax na lool nga joxe ko ci lu baax dana waral nga am ñaan bu baax Abdurahman ibnu Awf indi ñeenti junne ci ay dërëm yonentu bi ne ko ndax dara des na fa mu ne ko genn wàll gi laa la indil genn wàll gi laa fa desay yonentu bi nag ñaanal ko ne ko allahumma barik wala mooy yàlla yonentu bi ne ko baarakallahu laka fii ma am sakta wa fii ma an faqta mu jigéen ak alalam jay yokku di yokk ba mel ni suuf bu bëri woon alal la ñu mel nii nag ak képp kuñ laaj ci wàllu yàlla nga jox ci jàkka ci jumaa ci daaroy alquran yi ci yoon yi ci teen yi ci néew ju doole yi su boobaa tamit dugg nga ci aaya ji waaye ñu bari ci nit liñ gën a man mooy jël seen alal di ko investir ci ay fecc wala ñuy def maanaam di sponsor ci wàllu làmb wala ci yeneen ak yeneen yoo xam ne foo rek la jëmut fenn lañ ca man mënuñ ko ca jàkka ya mënuñ ko ca daara ya mënuñ ko ca timit fuqaraaw yeeg masaakin yi moo tax nag yàlla di wax ne a ngi wax ne masalul si na meloo gaaya nga xam ne yunfiquna dañuy dundale amwaalum seen alal fi sabilillahi ci yoonu yàlla ka masali xabatin dafa mel ni ki peppu ambatat boobu saxal na sabaa sanaabila juróom-ñaari gub fii kulli sumbulati nekk na ci bépp gub mi atu xabbatin téeméeri pepp boo ko calculé muy juróom-ñaar téeméer wallaahu yàlla yu daa ay fu dana mu ful maanaam lu gën a bëri loolu sax li ma ne saaw ñel ku ko soob ndax wallaahu yàlla waasixul aji yaatu la mu ngëneel alimun ku bëri xam-xam la allazina nga xam ne nag yunfiquna dañuy dundale am waa loolu seen alal fi sabilillah ci yoonu yàlla ñooy am loolu su ma laa yut benn topp du ñu tofal maa ngi fokkoo la ñu dundale man nan ñaaxe wala asan du caa kenn lor lahum aji nekk la ñaan leen ajruhum seen payoor inda rabbihim fa seen borom wala xawfun di ragal alayhim di war ci ñoom wala hum déeg ñoom tamit yaxsanoon ñuy jàq ëllëg ci àllaaxira de yàlla ne ñay am loola mooy ñoo xam ne bu ñu joxee seen alal duñ ko yàq ci ñaar joxe ñaar dana ko te ñaar yu koy yàq ci làmmiñ la bàyyeekoo bu ñetteel ba mi ngi koy wax si waaye a ci ñaar yi koy yàq tey bàyyeekoo ci làmmiñ mooy lu ñu tuddee mannu beneen bi moom la ñu tuddee maanaam mooy dimbalee nit ki ba pare jàll bi ko di ko ñaax da ñàkk jom soo may yàq sa ñàkk jom la ba sa bët yu xonqee bi sàngam man la sa xel daj nàngam ak nàngam bu ma bu ma dugatoon sama loxo ci sa céet gi ci sa màggal gi ci sa gàmmu gi ci sa nàngam du jag loolu boo ko defee ñàkk nga tiyaaba ak tuyóobu parce que ñàkk nga li nga joxe woon muy ti ti tuyóobu yi waaye ñàkk nga tiyaaba li nga doon dàkk bi ci tegu tamit mooy azaa mooy dimbale nit ki te ba muy ñëw dafa lëndëm woo lëndëm bi bëggul kenn gis ko mu wala mu naajoo naaj wi ne na ko baal ma ci naaj bi tàng na de wala guddi na di lu ne soxlaa ma yëkkati ma yaakaar la ci nga fajal ko ko ba pare jàllale bi ko di ko waxaat keneen te moom bëggutoon kenn yëg ne yaa ko fajal soxla si ndax moom da doon garder te yow nag bi nga ko weeree rek yaa ngi xotti xormaay jëm amoon ak personnalité am ba looloo waral tamit loolu da yàq joxe yàlla nag ne ñay am joxe benn ma defaleen ko juróom-ñaari téeméer yooyu ñoo ñoo xam ne ba nga joxee tofaluñ ca ñaax tofaluñ ca tamit lore kon nag ñu bari ci suñ jamono ji mën nañoo dimbale waaye wax moo leen koy yàqal te koo dimbal boo waxee rek mu yàq kon gis nga payoor yi dañoo wuute fenn fu ne ak raa bu ko yàllay fayee bépp jaamu yàlla goo xam ne laajul ñàkk laajul ñuqi yomb na comme jullee yu mel noona kooku benn bu ne boo ko defee fukk la la ko yàllay fayee moo tax mu ne man jaa bil xasanati fa lahu asru amsaaliha bépp jaamu yàlla boo xam ne dafa laaj nag ñuqi joxe alal kooku juróom-ñaar téeméer ba fa soob yàlla moom laay gi wax ne masalu lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ka masali xabatin ambatat sab'a sanaabila fii kulli sumratin mi'atu xabba bépp jaamu yàlla boo xam ne nag xol moo koy yëg ñu wax lu la naqari nga mën koo faj noppi muñ ñu wax lu la naqari nga mën a bind ci journal bi ci journal yi nga muñ te yàlla tax yàlla nee na koo nga xeres naa ëllëg dajeeg moom di ko peeseel naan ñaar laak fukk laak téeméer la dama koy sotti yiw am doyal innama yuwaffa as-saabiruun ajrahum bi xayri sarax nag lu am doole la boo jëloon baatab sadaqatu ñeenti xaraf la am na siin am na am na am na am laa bëgg a wax am na daalun am na xaafun am na haaun maanaam aa haau saxiira saat gi li muy tekki mooy képp koo xam ne saraxe nga ci te yàlla tax loolu sarax ba dana taxaw dëddu sa digganteeg lépp lu lu ñaaw lu la waroon a dal sarax ba dana la ko fanqal ci ay musiba ci ay nattu ci ay timit ay gaar-gaar kooku mooy sàdga te suddu su fekkee nag léegi daal ga la sarax gi dalay tegtal jëmee la ci yoonu yiw yoon wu lay dugal aljana bu fekkee xaaf gi la maanaam mu nekk maanaam xaaf gi su boobaa maanaam day nekk wiqaaye ak fekk ci lépp xeeti musiba yi xaawun saxira gi nag day nekk haadi lu lay gindi jëmee la ci yiw yiw woo xam ne dana yóbbu ba aljana moo tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg saraxa daana wax ne sadaqatul mu'mini tadfa'u an saahibiha aafati dunya wa fitnati alqabri wa azaba yowma alqiyaamati mu ne saraxa julit dana fitnaay maanaam fitnaay bàmmeel ak mbugalam yowma alqiyaama wax na tamit ci beneen xadis ne assaxaawatu shajaratun asluhaa fil janna wa axsaanuhaa mutadalliyaatun fi daari dunya fa man bi xusnin minha yasuquhu ila al jannati sarax li koy tax di defee mooy tabe mu ne nag tabe garab la bu sax ci digg aljanna bànqaasam yënduw ci àdduna ku ko def jàpp nga ca bànqaas ya ba doo ko ba yaa moom ba aljana nay nag garab la bu sax ci digg safara banqaasam yi lëw fii ci àdduna ku ca ku nay jàpp nga ca banqaas ya yaa moom du la ba doo ko ba ba safara ba daana wax ne yéeféer bu tabe la yàlla gën a bëgg ki jullit bu nay ndax jullit warul nay kon saraxa ngoog nekk loo xam ne lu ama am solo la ñu war cee gën a góorgóorlu te tamit di ko xiir di ci def lu baax boo xamoon nag yéenay saraxe te amoo loo saraxe dañ la bindal yéen a saraxe ba waaye léeg-léeg nit jël juum jël aaya hadis bi yonent bi wax di ko firee di ko taxut a jóg niyatul mu'min xayrun min amalihi naa ni yéeneeb jullit bi moo ëpp doole jëfam duñ benn loolu li ko taxoon dafa dële woon benn teen wane ne ku ko gas danga ci am yiwu rëy rëy rëy Usmaan ibnu Affaan yittewoo gasi teen ba ndeke benn yéeféer jiitu na ko fa gas ko mu naqari ko lool ci xiw wi mu yaakaaroon ki jox jullit ñi ñu naan far ku bon jiitu ko ca te kooka sax loolu wut yool taxul ko woon a jug léegi nag ba nga ko déggee mu koy métti la yonent bi ne ko niyatul mu'mini moo tax sax ko ne yéenee jullit bii jox Usmaan xayrun moo gën min amali ci jëfi xéeféer jëli nga xam ne def na ko ba mu sotti waaye ba tey tamit valable na nga mën koo firée ne jullit bu àndul ak jëf moo gën jëf ju sotti ju àndut ak yéene waaye nag jëf ju ànd ak yéene ju sell man ta yem ak yéene rek kon loolu moo taxoon a jug maanaam xadis bi saraxee ngoog am solo lool ñu taxaw ci bu baax a baax gën koo fonk moo tax mu tafal ke ne àll si ne mooy gaa yi nga xam ne yu ngi fi xone dañuy jullee am aloobu seen alal fii sabillaay ci yëkkati diine yàlla ji su ma laayot bu am na topp gannaaw si duñ fa tofal duñu tofal ma an faqu ca lañ dundale man nan ñaaxe wala asan du jaaken lor man mooy ki nga dimbale nga déggale ndimbal li asan mooy ki nga dimbale da koo déggale keneen ku dut moom te moom bëggutoon kooku yëg ko ñoo ñu def lii de lahum aji nekk la ñaan leen ajruhum seen payoor inda rabbihim fa seen borom wala xawfu der ragal alim di nekk ci ñoom wala hum déet ñoom tamit yaxsanoo la ñuy jàq ëllëg ci àllaaxira te gis nga a baax la saa yoo jëkkatee dara saraxe ko te yàlla tax sarax ba dina la wax na ne man mii de jeexoon naa waaye yaa desal tuuti woon naa waaye yaa ma man mii de ba nga ma téye yaa doon wattu waaye bi nga yëkkatee saraxe ma maa mu gind la wattu kon sarax li mu làmboo ci ay yiw kenn xamut ni mu toll Ibrahima ku mënoon saraxe la moo tax benn bi sax toog rek benn waay ñëw fekk Ibrahima di sàmm ay gàttam matoon nañ juróomi junney gétt ci ay gàtt ay xaj di leen sàmm xaj bu ci nekk mu takkal ko séntéere bu or ba wala wurus loolu nag daganoon na ci sariyaam waaye loolu daganu ci suñu sariyaam ndeke nag kooku ba mu ñëwee tudd baatu yàlla ma ne ko yee tudd nga sama xarit may naa la genn wàllu gétt gi te boo ko ñaareelee ma jox la gétt gi yëpp mu ñaareel ko mu jox ko gétt gi mu ne ko boo ko ñetteelee ma soppe ko sa sàmm mu ñetteel ko mu ne ko jox ma yàgg bi ma di la sàmmal gàtt yi ci la ko xamal ne ko man malaaka la yàlla ma nattu yónni ma ñëw di la nattu seet ba kam xaritoo di ngay xaritoog yàlla yàllaa la gënal yàlla sa xarit sa alal ji wala sa alal ji la gënal yàlla waaye yow de yàlla la gënal sa sa alal ji nit ñi nag ñetti xaaj lañ am na ci ñoo ay aqwiyaawu lañ am nañu koom-koom mën a dundale ci lépp luñ am ko duñ ba dara comme li dal Usmaan ñooñu ñi nga xam ne ñoom la alquran di wax ne minal mu'minin rijaalun sadaqu maa ahadullaah alayhi ñooñu ci la Abubakar Siddiq bokkoon ñaareel ba mooy mutawassituna yi maanaam danañ joxe waaye nag am luñ bàyyi loolu tamit ba baax na am na nag ñoo xam ne tamit tabaarakallaahu muy ñetteel ba du'afaawu lañ ñoom liñ man mooy joxe asaka ji war waaye mënuñ caa teg dara ba tey tamit baax na waaye ku ku njëkk moo leen gën foor yàlla ne xawlun wa mooy wax ju rafet wa maxfiratun ak njéggal xayrun moo gën sa sadaqatin ci sarax yatbauha boobu dana tofu ko asan lor wallaahu yàlla xanim aji xoomal la xalimun ku lewet la de yàlla mu ne nit ki ñëw di la yalwaan wala wax la soxlaam nga wax ko wax ju rafet ah war na ko fee fekk boo ko fekkoon dem ma jox la li fi nekk de dafa am lu ma ci programme ba pare nga wax ko wax ju rafet moo gën nga yëkkati sa alal jox ko ba pare jàllar ku mu dem nga yëkkati kàddu di ko teg ca gannaaw di ko yëgal ñeneen am na ñoo xam ne kuñ dimbale wax jox nit ki ñaari junni ni keneen ñëw nga ne ko ah, nga baal ma de diw de moo fi jógee léegi moom laa ko jox ma nu ma koy def yàq nga sa alal yàq nga sa yoon amatul tiyaaba amatul tuyo moo waral nag yàlla bañ yàq sarax yi moo tax mu defal ci ay ji ne yaa ayyuha alladina yéen gaa yi xam ne amonoo gëm nañu alquran laa tubtiloo bu leen yàq sadaqaatikum seen sarax yi te mooy bu leen yàq seen payooru sarax yi bil man ni ci ñaaxee waxoon na ko wal aza ak lor dafa am lu mu ci bëgg a tof moo tax moom mu togal ko ci këllësi ni kiy waaja nga xam ne yunfiqu dana dundale maaloo alalam riyaa naa si ngir ngis tar rek moo tax waaye walaa yoominu gëmut billaahi ci yàlla wala yow mel bis aaxiri bu mujj ba kooku de wax dëgg yàlla bu leen mel ni kooku de këllësi yunfiqu maaloo riyaa naas moo tax mu tafalaat ci loolu kon gis nga joxe alal payoor ak joxe ñett a koy yàq mooy ñaax lor ngis nit ñi wër la rek ngay tekki bay par ay dix mille di joxe maanaam géwél yi dar la ak wa ñi ngi sàmm mbaayaan yi jàkka joo yëggul ma nga sa koñ ba daara yi jàng alxuraan nang fa te kenn mënu laa gis ñoom jàkka yi sax xamul la waaye nga bëgg rek ñu ne kii a tabe di la way ci télé yi di la way ci clip yi tabaarakallaahu tey bari na fi ñoo xam ne way nañ leen te ci way lañ leen xamee ci réew mi waaye boo demoon koñ bañ dëkk sax jàkk ja xamul daaray alquran yi xamul leen seen mbokk yi gën a jege tamit xamuñ leen luñ leen dimbale sàmba àllar rek la def loolu nag li koy waral mooy ngistal ngistal nag baaxut yàlla dafay wax ne man de lu ma rek ma génn ci ndax man doyal naa doy naa wëlis maanaam ah, maanaam ay suraka yuñ may bokkaale xaniun ani suraka kon nag fa masaluhu meraw kooku nga xam ne day dundale te fekk naa fiq rek la wala ngistal ka masali safwaanin dafa mel ni ki melow doj wu ratax alayhi nekk na ca doj wa turaabun suuf fa asaabahu jot na doj woowa wala su suusu waamilun waame muy taw fa tarakahu bàyyi na ko saldan muy aji ratax laa yaqdiruna attantit maanaam ala seen ci dara maa kasaboo ci lañ fàggu de mu ne joxe te fekk yàlla taxut nim perte ni ngi mel ni suuf su nekk ci doj wu ratax taw ba ñëw taw ca boo ku la joxoon milliard mënatoo dajaleeti suuf soo sax kon tamit ba saa yoo yëkkatee sa alal joxe ko te fekk yàlla taxut alal jóge dootoo ci jotati fii bu yow man xiyaamee tamit dootoo ci jotati ndax li nga ko joxe woon ngir ngis tal la woon te maanaam sànku na ca payoor nga tamit mujj sànku ndax yàlla taxutoon nga di ko def moo tax mu ne wallaahu yàlla laa yahdi du gindi alqawma nit ña kaafiri ñu di way weddi de waaye nag masul la si ne meloo gaa yi nga xam ne yunfiquuna dañuy dundale am waalum seen alal ibtigaa mardaatillaahi ngir sàkku rek payoor ak yàlla ngir sàkku maanaam ngërmande yàlla wa tasbitan ak ak saxal min anfusihim seen bakkan mooy dëggal ak yool wa tasbitan ak dëggal ak yool min anfusihim seen bakkan ñooñu de ka masali habatin dafa mel ni ki pepp maanaam bu nekk ci tool bi rëbootin bu nekk ci tund boo xam ne asaabaha jot na waa woowa waabilun waame fa aatat joxe na moom to moom maanaam tool ba maanaam kuluha meññatam ma deex fay ni ñaari ful fa in lam yusibha ndeen jotut ko waabilun waame fa tallun maanaam tawa bandal wallaahu yàlla moom yàlla moomu de basirun aji xam la maanaam bi maa taxul li xam yéen a koy def de mu ne nag ki joxe am nga bi mu ñu waxee ki joxe te yàlla taxul misaal ko ci dañu war a tax suuf nekk ca taw bi ñëw jëlee ko fa ni nit ci loxte ci dagalee xaat suuf soo sax ni lay lottee ëllëg ci dëkk payooram ga ndax lam doon def yàlla taxutoon te tamit xaalis ba mu joxoon dootu ci jotati xanaa beneen rek waaye xaalis boo may jiwel ngir bu tàgg la wala nga def ko ci di sponsor ci wàllu làmb yi nga def ko ci may ko musicien yi wala nit ci tàgg la nga yëkkati ko joxe ko yu mel noona dootoo ci jotati xanaa beneen xaalis payoor tamit doo ko jot ëllëg ci àllaaxira ndax ya ngis tala taxoon nga joxe ba perte nga waaye nag mu ne su fekkee dangaa joxe te yàlla tax mi ngi mel ni ku amee jiw suul ko ci suuf su baax yàlla ja taw ca taw bu baax léegi nag bu doon joxe benn nga ne lii su ma ko daan bay de daana ci am fukki mbaam su boobaa nag yow jàppal ne cunwaar gu ne andil na la ñaari mbaam cunwaar gu ne ñaari mbaam nag loolu ñu dëkk Saalum ñoo ko mën a dégg te mooy boîte ñuy def gerte yi bu ñuy ji nga xam ne bu nangoo ba nangu mënul passé mbaam ñaareel kon nag bu demee ba jox la ñaari mbaam kon yow daal dëgg-dëgg lebal nga leble nga lebal nga ku mata lebal moom tamit mu fay la ca matam nga ndax da nga koo lebalee ci na nga toll mu fayale ca nam toll sa bunt yëpp ubbeeku kon nag loolu lu baax la moo tax mu ne àllasi ne gaa nga xam ne ñu ngi fekkoon dañuy dundale am wàllum seen alal ibutiraa mardatillahi ngir sàkku ngërmande yàlla yi wa tasbiitan ak ngir dëggal payoor min anfusihim ku bàyyi seen ku bàyyi ko si ñoom ñooñu de ka masali habatin dafa mel ni ki pepp bu nekk bi rabotin ci tund ñu suul ko ca suuf su yemoo asaabaha jot na tund wa waabilun waame fa atat joxe na ukuluha meññatam ma yax fay ni ñaari ful fa in lam yusibha ndeem jotul ko waabilun waame fa tallun taw bandal te mooy maanaam ñepp-ñeppal a ko borom maqaama waxee maanaam fa tallu a tallu qad yabdu amaamal wabli wal fadlu lil wabli laa laali laali talli waaye walaahu yàlla basirun aji xam la bi maa tamal ne xam yéen koy def de bàyyi naa wax jooja mi ngi tey ba day léebuwaar rek di ñu jàngal ci joxe te yàlla taxut nim méttee moo tax mu ne ay yahudu ndax dana ngéeju ahadukum kenn ci yéen an takuna ba nekk la woñeel ko janatun tool min naxiirin ci tàndarma wa anaabin ak i resee te jëri yooyu dana daw ci tool yi min taxtiyaa ca ronam alanhaaru sew na yee ñeent la woo ñeel na ko fii haa ca meññeent ya min kulli samaraat ci xeeti ci xeeti yépp nga ca waaye nag wa wa ca dëgg-dëgg jot na asaabahoo jot na tool ba alkibru wa dëgg-dëgg asaabu woo jot na waa jooju di borom tool ba alkibru ak màggat wala wootu ak nekk la ñeel ko moom màggat moom moom tool bi zuriyatun njaboot doo faaw ñoo xam ne lompañ lañ mënaguñ sax liggéeyi fa asaabaha jot na tool ba ihsaarun ngalawal cali weer fii aji nekk la ca ngalawal cali weer la naarul safara ba tax na nag fa maanaam faxtarakat mu lakk safara wa lakk mujji maanaam safara wa lakk tool ba léegi nag kazaalika naka noonu yàlla leeral leen lii yu bay nu lay leeralee allahu yàlla laakum ñaan leen yi laallakum mbastale yéen ngeen mën a xalaat ci biir yàlla yi ba mën koo settantal ndax ngeen mën a jub mu ne ndax kenn ci yéen dana bëgg yaakaaru toon dul benn tool lam amoon lépp def na ko ca lu yéen a jàtti wala mu jënd ko jàllar ko na ut jiw def ca ji na engrais na jàpp na ay surga yu dul jeex yàlla dogal te moom amul dara lu tool bi la yaakaar ñi ko yàlla dénk bu mënaguñ dara ay xale yu ndaw lañ toll ci nàmp ñi toll ci fer ndeysaanam toog a toog ba guddi rek ngelawal ca dugg ca tool ba ba mu ca duggee nag tabaarakallaahu ànd ak safara safara wa lakk ko moom mënut a dem ko ñi mu am ak néew tamit mënuñoo fay tool ba ngir tuuti naka noonu tamit képp koo xam ne da ngaa joxe sa alal ci la duhut waru yàlla na koo ko perte ànd ak réccu te dara gën a métti nga jàkkaarloo luy yàqu te mënoo ca dara muy sa alal nga xam ne jamono ja muy lakk sa xol baa ngay lakkaale lu ko gën a métti amul mën a tamit joxe te fekk yàlla taxut ndax ba nga joxe da nga ngistal wala ba nga joxe da ngaa ñaaxe wala ba nga joxe da ngaa loru mi nga mel ni ku jàkkaarloo alalam juy yàqu te fekk maanaam ñam mënal dara tamit mënaguñ dara pour mënal ko dara gis nga yàlla ku mën a léeb la moo waral sarax am doole moom laa la wax Ali ibnu Abi Talib daan wax ne nit ki saa yu génnee ji sarax ba dana wax ak moom juróomi dana ko wax ne ko tuuti woon naa waaye yaa ma bëri kuntu xalilatan fa kasartani ñaareel bi mu ne ko kuntu saxiratan fa kabartani tuuti woon naa waaye yaa tuuti woon naa ba tey yaa wa kuntu aduwan fa ahbabtani maa nekkoon di sa noon ndax nit ku ne xam la noonam la nga koo bëgg waaye nag yaa ma maanaam bëggloo nga ma la nekkoon naa di luy jeex yaa desal nekkoon naa di ku ñuy garde léegi nag mujjeeku naa di la garde looloo waral ma maxkuul ashaami daana wax ne jullit bi bu saraxee ab sarax su ko defee bu saraxee ab sarax te fekk yàlla tax safara day woote ne yow sama borom digal ma ma sujjóot ngir sant ngir kii nga xam ne saraxe na te yaa tax ndax kon man goreel naa kenn ci xeetu sayyiduna Muhammad ndax man kat xeres naa di mbugal kenn ci xeetu yonantu bi sallallahu alayhi kon ku bëgg a mujj ci safara na nga fonk di saraxe te waxoon naa la sarax ñeenti baat la saadun la waaye tamit tabaarakallaahu am na daalum am na xaafun am na tamit tabaarakallaahu lu ñuy tuddee xaawu saar ga nag mooy tasuddu wa tamna'u an saahibiha makruha dunya wal aaxira saar gi day waral mu dëdd loola tere la mbooleem yuñ si bi àdduna yeeg alaaxira daal gi nag tadullu tadullu saahibaha ilal janna da lay teete yóbbu la baaxal janna xaaf gi nag mooy xurba la day jegeel boromam yàlla haa gi mooy hiddaaya la kon sarax am na doole trop nañ ci taxaw di ko fonk yonentu bi daana wax ne man qataa rajaa man iltajaa ilayhi qataa allahu rajaahu képp ku dagg yaakaaru ku la yaakaar sa buntu kër di la yalwaan wax la tay ni kër nga dara nekkul fa nga dagg yaakaaram bu yowmal qiyaamee war na yàlla yàlla dagg sa yaakaar moo waral xadis bi kenn ci borom xam-xam yi bi mu ko jàngee dafa joojoo yu métti gëlëm ngir loolu ngir rek tabaarakallaahu li ci xew moo waraloon sax gaayu yaakaaru bàyyi ma waxuma la yaakaaru doomu aadama kon nañu dëkkale yaakaaru nit ñi bañ tamit di tas yaakaar tas yaakaar baaxul kuy tas yaakaar nit ñi bu kar yoomal xiyaama yàlla tas sa yaakaar kon gis nga aaya bi ma wax muy ay yawaddu ahadukum yàlla daf cee sadd melow kiy joxe te yàlla tax ak kiy joxe te fekk dafay naafiq rek naafiq la ngis ta la tax ndax boo seetee kiy naafiq kiy dundale ci neex kooku dana am xalaf mooy lam joxe dem na waaye du am lu ko wuutal ki joxe nag te fekk yàllaa tax day am xalaf ak saraf lam joxe dana del siwaat mu am tedd nga kii nag moom day am pertement ak sànkute kon ki joxe te yàlla tax xalaf lay am ak saraf kii nag day am saraf ak talaf boo seetee kële joxe te yàlla taxut dal la sax yuhul waa jii nag joxe te yàlla tax moom day sant jëfam lu des lay doon kële joxe te yàlla tax jëfam day sekk di yolleeku di di dolleeku ki joxe na te yàlla taxut kooku moom jëfam day sippeeku mu mujj perte kële joxe te yàlla tax ak mu jëm day rafet kii nag mu jëm day ñaaw kon noonu nga koy toppee ba melokaana ya jeex kon nañu sellal jëf yi te bu ñuy joxe te yàlla tax suñ ko defee rek danañu mucc ci lépp loo xam ne bëgg nañ caa mucc waaye di joxe te yàlla taxut yàlla du nangu de ndax moo ne woon moom yonent bi wax ana ganiyun an shuraka alxadiisul qudsi man yàlla xoomal naa walis ñu may bokkaaleeg fa man amila lii wa ashraka fiihi xayri fa innani bariun minhu kon man daj naa ca loola ndax man daj naa ci loola wax bu im na mun bi mu ne iblis mos naa ñëwal yonantu bi yonantu bi ne ko looy ñëw mu ne ko sama borom ma digal pour ma ñëw ci yow nga laaj ma pour ma mën laa tontu yonentu bi laaj ko ne ko ñaata noon nga am ci sama xeet bi mu ne ko fukk ak juróom kan kan mu ne ko yaa ci jiitu ñaareel ba mooy ilimaan ju ñetteel ba mooy borom am am bu wàccee boppam ñetteel ba mooy ñeenteel ba mooy commerçant bu dëgg ka ca tegu mooy borom xam-xam bu ragal yàlla jullit buy laaje biir nit ñi ku gëm yàlla ku am xolab yërmande koo xam ne dafa sax tamit ci tuub ak ku sàmm ba lu xaraam du ko jege ak kook julit boo ne fu mu toll day taxoo laab ak julit boo xam ne ku bari lu muy saraxe la ba du seen ma ci sarax ya ak koo xam ne julit la te nekk ku rafet jikko ak nit ñi ak julit boo xam ne day jariñ nit ñi rek ak ku jàng alquran di ko jëfee ak koo xam ne bu nit ñay nelaw moom ma ngay naafi la ñii de mu ne mooy noonam yi noonam yii nag mooy soppee yàlla yi yàlla ñu ci yàlla boole yàlla ñu yàlla boole ci noonu iblis yi ndax ñu bokk ci soppee yàlla sama xeet wi ñaata ñoo ciy say xarit mu ne ko yee am naa ci fukki xarit ki ma ci gën a bëgg mooy président bu jeng xolam wow du wax dëgg amul yërmande ci population bi yoonam mbir yépp boppam ak njabootam bu nit ñi doon dee tamit yoonam nekkul ca ak ku xoomal kuy rëy rëylu ak commerçant buy wor ak kuy naan sàngara tabaarakallaahu ak koo xam ne fu mu toll dafa bëgg di ngistal ak kuy lekk riba ak kuy lekk alalu jirim yi ak ku dul joxe asaka ak ku gudd mbébét ñii de bokk nañ ci sama ñi nga xam ne ñoom laa gën a bëgg ci sa xeet bi kon nag moo taxoon yonent bi ne maa minkum min ahadin illa sa yukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa bayna allaahi tarjumaanun xijaabu mu ne xam leen ne kenn ku ne ci yéen dana wéet ak boromam ba mel ni moom la mos a bind ba buy wax ak yàlla du am benn interprète bu fay nekk su boobaa nag nit ki na xam la muy jiital balaa dajeeg borom lu jar a bàyyi la laajoon nañ benn aarif billaahi ne ko waaw lan moo gën ci jikkooy doomu mu ne gën a rafet ci jikkooy doomu aadama daal mooy ci gën a rafet nag ci jikkoom ci jëflanteeg nit ñi mooy jéggale ak tabe kon yii kum nekk ci yow rek na nga yàlla yàlla continué yaa ayyuhal lazina yéen gaa yi nga xam ne amanoo gëm nañu alquran anfiqoo dee leen dundalee min tayyibaati maa ci way tey la nga xam ne maanaam min tayyibaati maa ci way tey la nga xam ne kasabtum faagu ngeen ko wa mimma axrajnaa ak ci leen ci loo xam ne génneel nañ leen làkkum ñaa leen minal ardi ci suuf wala tayammamoo bu leen jublu alxabisa lu bon la minu ca loola tunfiqu na ngeen koy dundale te fekk na walastum déet yéen bi axisihi ngeen koy nangoo jàpp bu ngeen ko doon fayee bu ngeen ko doon fayee bor ah ila an tuxminu loolu ngeen gëmmal fii ci moom nga xam ne bu ngeen ko jël da ngeen di perte wax la moo na ngeen xam ne ana laa naka yàlla xaniyun aji xoomal la xamidun kuñ sant la aaya bii mooy aaya bii ne asaka yàlla ne nañu génne asaka yi ci li ñuy bay ci suuf imaamu Maalik jël min gi dem ko muy minam taboxi ne lenn lañu war a génne asaka li suuf di saxal buñ ko calculer ñaar fukki xeet la te mooy loo xam ne man nañ koo denc mën koo dundee waaye loo xam ne bu mënuñ koo dundee dañ koy boole leneen ngir dundee ko rëndee la man kenn du ca génne asaka wala loo xam ne bu mënul rëndee tamit boo ko dencee mu yàqu duñ ca génne asaka moo tax ci mazhabu Maalik la ñu génne asaka moo doon xeeti dugub yi su dugg na saaño ba si bene bele beeg yooyu naka noonu tamit lu mel ni raisin bi lu mel ni tàndarma ak lu mel ni yooya la lim ba mu mat ñaar fukki xeet bu dee ci Abu Hanifa la ñu asaka wun maa xaraj naa daf jël min gi ko muy minam istigraqiya mooy lépp lu ñu génnee ci suuf rek moo tax moom ci mazhabam dañuy génnee xaaw naaje yomb ñambi maanaam concombre ak pataas ak lépp lu ci nekk rek dañ koy génne asaka li Abu Hanifa wax nag moo gën a arrangé fuqaraaw yi ñay jël li Maalik wax nag moo gën a arrangé ñay joxe kon kenn ku nekk ak na nga déggee ca ñooña boo jëlee ko téere fiq ci dellu ci kenn ku nekk na mu gisee ñañ war a génne asaka ci Abu Hanifa ak imaamu Maalik moo tax mu ne kon nañuy dundalee ci lu teey liñ génnee bañ a bokk ci ñi nga xam ne la ngay joxe buñ la ko doon jox doo ko nangoo jël loolu nga gëm nga xam ne ah su ma ko jël perte moo tax ma ne ilaa an tu'minu kooka daganut kon gis nga ko ni ko Maalik gisee tamit imaamu Shaafi yu dafa waral asaka ci lu ñuy dundee doomu aadama mën koo dundee te fekk lorowut ki sartaab mu mat juróomi damuy wusux su ko yàlla nàndalee fukkeel ba soo ko nàndalee genn wàllu fukkeel ba Abu Hanifa wax moom dafa jëfandikoo saahiru aaya bi moom dafa ne lépp lu génn ci suuf rek doomu aadama di ko lekk dañ ciy génne asaka muy furwéyeeg ak maanaam yu nëtëx yi nga xam ne day lawa ak yu ñuy gas nga xam ne day am ay ren ci biir lépp dañ koy génne asaka ci mazhabam bu dee Maalik ñaar fukki xeet ñaar fukki xeet yooyu dugub bi ci lañ bokk muy xampo sha'ira sultu dugub bu cëgg tabaarakallaahu ca la bokk muy duxnu Euh, ak ak zuratu mboq ursu ceeb alas pepp bu boobu ca la bokk waaye tamit bësi ca la bokk bokk na ko tamit xeeti sëb yi juróom-ñaar lañ waaye benn la ci xeetu asaka muy fuuloo xims tribis ak ba baslatu maanaam julbaan ak lubiya ak adas ak juróom borom yi xeeti diw yi ñeent lañ zaytun xurtum xabul fudli al wa simsim ak tàndarma ak zabib muy raisin yii moom la Malick ne nañ ko génne asaka waaye na mat juróomi dabi wu suuf bu matee juróom benn bëri ko yu manqué tuuti bu yàlla ji tawee fukkeel ba bu fekkee yaa arrosé genn wàllu fukkeel ba kon asaka ngoog ak ni ko mazahib yi gisee ci kenn ku ci nekk ak sa sa gisee yàlla tofal ke ne a shaytaanu shaytaane yaidukum dana mu dëxal leen alfaqara ñàkk wa yaamuru ko mu leen digal bil fahsaayi ci nay waaye wallaahu yàlla yaidukum dana mu dëgër dana mu dëxal leen ci dundale ga maxfiratan ak njéggal mi nu ku bàyyi moom wa fadlan ab wërsëg walaahu yàlla waasiun aji la mu ngëneel alimun ku xam la ci kiy dundale moom yàlla yuuti dana mu joxe alxikmata xam-xamu njëriñ ma yasaaw ku ko soob wa man képp koo xam ne wita joxeef na ko alxikmata xam-xamu njëriñ faqad uutiye joxeef na ko xayran yiw kasiran bu bëree bëri wa maa yatazakkaru du xalam wa maa yatazakkaru du waaru illaa yi maanaam alal saa yoo ko yëkkatee di ko joxe saytaane la ngaa mucca ne bu demee dootul ñëwati de bu ko joxe nga dem xeexal loola ba gañe ne ba gañe ko ne mën naa ñëwaat mu ne la ki nga koy jox waroo ko koo jox ndax ku la bañ la kii fu mu toog sa garab bi lay yàq su ko defee kon ci ñaar yooyu lay xeex ak yow te fexe ba gañe ko ci ñaar yooyu defe la waroo joxee lii ak waroo koo jox kii bis moo nag jéggee ñaari baaraas yi ne war naa joxe te war naa koo jox kii ak mu man di mel moo xam moo tax ñooy joxe ngir yàlla si surtout sax ka ñuy jox day naan sàngara day tux cigarette ne nañ ko ko jox rek moom lu ci def affaire yi boppam la moo waral kon seytaane rek mu langaamu ca tegal la ci ay ay ay ay ay tabaarakallaahu ay ay ay ay yoo xam ne dara du ci waaye nag boo demee ba gajee ko rek yàlla dana la dimbale nga mën koo gañee boo ko gañee rek nag mën a mën mën a jàpp gis nga xikmatu leer la ci leer yi melaw yàlla yi yàllaa koy dëgëralee xol ku ko soob yàlla na ko yàlla dëgëralee boo ko seetee nag xikmatu moo bari waaye xam-xam bëriwul bari wut dafa wax ne wa maa uutiitum de su fekkee da nga ma jàng rek laay xam kon doo bëri xam-xam xikmatu nag mooy moo bëri moo tax man wa man uutiya al-xikmata faqad uutiya xayran wa man yuuta al-xikmata faqad uutiya xayran kon isan al xikmatu kathiratun mais wala ilmu qalil kon waaye xam-xam bëriwul li xam-xam bëriwul tax yàlla ne lu tuuti lañu ci jox li xikmatoo bëree tax moo tax mu ne ki ma ko jox jox naa la lu bëree bëri bëri waxin bu sewal wa maa anfaqtum lépp loo xam ne dundal na ngeen ko min nafaqatin ci dundal aw nasartum wala ngeen nisar ca dundale ga lépp loo xam ne da ngeen koo moo xam ci asaka la wala ci sarax wala ngeen nisar ngir joxe ko te matal ko fa inna laa naka yàlla yaxlamu moo xam na ko dana fay leen ko de wa maa lil zaalimiina di ñaal tooñkat yi tere ne duñ joxe asaka te duñ matal nisar min ansaar yi ñu leen di dimbale ëllëg yawmal ba leen di dañuy perte rek moo tax képp ku jox war a joxe asaka te doo ko joxe prépareel ni su jaawu aqraam ak lay xaar ci sa biir bàmmeel joxe nag baax na tu nee na yàlla am na ñaari malaaka kenn ki saa yu xëyee day wax ne allahuma aati munfiqan xalafan keneen ki di wax ne allahuma aati mumsikan talafan yow yàlla kii di joxe ta nga tax lu mu joxe nanga ko wutalal ki nga xam ne nag danga ko ko day joxe dafa téye lam joxe du ko nangoo joxe li mu yore yàlla nga ko yàq moo waral kiy joxe te yàlla tax kenn xam la muy am alal ji day def xalaf rek di gën di tuuti di gën di sotteeku rek moo waral loo bañ a ñàkkati bu ko joxe waaye loo bëgg a ñàkk lu la téye ko kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax mu ngoog seytaane day wax na yow doomu aadama lii nga joxe bu ko joxee ndax dootul ñëwati boo ne ko danaa ko joxe mu ne kon bu ko jox kii ndax ki nga koy jox xeewut bu ko la bañ la comme ni ma la ko waxee woon sànq rek moo tax tamit yàlla tofal ca ne yàlla tofal ca ne ne in tubdoo feeñal ngeen sadaqaati sarax yi te saraxi coobare yi fa naima baax na hiya moom feeñal ga waaye wa in tuxfuha su fekkee nëbbu ngeen ko wa tuuha ngeen jox ko fuqaraa ñu ñàkk ñi fuqaraa ñu ñàkk ñi fa huwa moom xayrun yiw la lakum ñaar leen de wa yukaffirana kafaara moom yàlla an ko walis leen min sayaatikum seen ñaawteef yi wallaahu yàlla xabirun ak dañ kumpa bi ma taxmalun li nga xam ne koy def sarax soo koy joxee te mu nekk sarax su coobaree maanaam nëbb ko moo gën feeñal ko su fekkee ne sarax su dul coobare mel ni asaka ak yu mel noona feeñal gaa gën ndax ñeneen ñi mën a fàttali ko mën ci yow waaye léeg-léeg tamit saraxu coobare feeñal ko gën na gë ndax su fekkee ku ñuy laajal la te boo joxee ñi toppandoor la te ba ngay joxe ngistal taxut yàlla rek a tax feeñal ko moo gën su ko defee tamit ñi mën la caa roy ndax kiy laaj am lu bëri te boo feeñalee tamit te yàlla tax moo gën nëbbu ci yenn place yi su fekkee la ñuy ragal mucc nga ca ndax su boobaa yàlla dana ko seede malaaka yi seede ko nit ña ko fekkee seede ko nga am yiw mu ñetti yiw sarax nag ñett la dafa am bu feeñ bu nëbbu bu nëbboo nëbbu bi nëbbu mooy bi nga xam ne ki joxe rek moo xam ak ki jël ñun ñaar rek a xam loolu mooy bu nëbbu bu nëbboo nëbbu mooy boo xam ne ki joxee xam mais ki jël xamut mi ngi mel ni ñu koy misaale kuy jaay nga laaj ko ne ko lii ñaata mu ne dix mille francs laa koy jaayee te wóor na ne boo ko wàññiloo mu jaay la ko huit mille francs nga yëkkati dix mille yëpp jox ko namm ne huit mille yi mooy prix ba deux mille yi def naa ko muy sarax ndax kantinam bii di bëgga a daanu ni mu doole wala muy wër di daaj di jaay te maanaam waa biram ñoom lañu yaakaare su boobaa moom day foog ne rek tey am naa kaañ ndax lépp ci njëg gi la fekk kii mi ngi namoon na njëg a mooy huit mille francs mais nag deux mille yi def naa ko muy sarax kooku mooy bu nëbboo nëbb ki jël sax xam bu feeñ bi nag mooy koo xam ne ki joxe xam ne ki jël xam ne keneen ku dul ñoom xam na mi ngi mel ni nga yëkkati jox ko sa doom wala sa xarit wala sa ndaw rek nga ne ko am joxal ma ko sa baay diw ne ko lam doon sàkku ci man na jël lii mu dimbali ko ko su boobaa kii ki joxe xam na ki jël xam na ki ñu yónni xam na waaye bu mu ci mun di doon bu yàlla rek taxee ngistal amut ca waneewu amut ca su boobaa tamit yàlla na mu toll yàlla moom ni mu ko lebalee rek noonu tamit la koy jëlee kon feeñal tamit baax waaye boo feeñalee fekkee bu feeñee nga am ngistal baaxut ndax kat ibnu abbas dafa daan wax ni sarax su coobaree nëbb gi moo gën feeñal ga ndax mu ne feeñal ga maanaam juróom-ñaar fukk la ci ful waaye nag mu ne sarax soo xam ne sarax su farata la feeñal ga gën moom nëbb ga ndax feeñal ga ñaar fukk ak juróom la ci ful bi nga nëbb nag moom kenn amul àpp ba su fekkee ci coobare la gis nga ko boroom xam-xam ba dafa maan wax ne nekk na ci sarax maanaam nëbbu ga ak feeñal ga ay mbir bi ki njëkk mooy nëbbu ga moo gën a sori ngistal ak ndéggtal te yonentu nee na yàlla laa yaqbalu min musmain wala murain wala mannaanin kuy joxe ngir ndéggtal wala ngir ngistal wala ngir ñaax yàlla du ko nangu kuy waxtaane ci sarax ñaareel sikk amut ne dafa bëgg ndéñ ndéggatal moo ci gën a bari mos naa am benn xewu rëy ñii lim naan diw joxe na fukki junne kii ñaar fukki junne ba jox la benn waaye ñu watal ne ah li ngi daal ñoo bëgg ngistal rek man maa ngi ni téeméer junne laa wax laa joxe te kenn yëgul ko sax kon kooku xam nga bëgg na ñu yëg kon lu ñuy def na fekk yàllay tax te ñaareel tamit boo nëbbee sarax sa kenn yëgut ko day tekki ne bëggoo mu siiw bëggoo ku la tagg mucc gi ngay mucc ca loola rek moo tax tam mu gën a mu gën mu gën a baaxati léegi yonentu nee na tamit afdalu sadaqati juhdul muqilli ila faqirin fi sirrin gën ci sarax yi mooy ku amul dara fexe ba def effort lam jox tamit mu jox ko ku ñàkk kon loolu tamit ba tey baax na bul ñàkk ba ne du saraxe moo waral sax boo amul ba amuloo loo saraxee dañal eh, lu luy lore ci yoon sarax la sàbbaal yàlla subhaanallah walhamdulilahi sarax la comme na ko yonent bi waxee woon ba joxoon ko gars yi ci baaqiyaatu saalihaat moo tax mu tofal jeneen lay sa alayka warul la yow yonent bi hudaahum seen ak njub ñoom xéeféer yi walaakin na li fi nekk allah yàlla yahdi mooy gindi ma ne saa ku ko soob wa maa tunfiqoo lépp loo xam ne dundal la ko min xayrin ci yiw fali anfusikum ñaan na seen bopp de maanaam payoor ga yéen a koy moom wa maa tunfiqu lépp loo xam ne dundal na ngeen ko te da ngeen koy def jubloon ci ibtigaa wajhi llaahi lu sàkku yàlla ba ba tey tamit de maanaam yéen a moom payoor ga de wa maa tunfiqu lu ngeen dundale min xayrin ci yiw yiw wa fa dana matal moom yàlla payooram ilaykum jëm ci yéen wa antum yéen de laa tuzlamuuna deefu tooñeef leen bay wàññi seen lu baax li waaye tamit duñu leen tooñ ba leen yokkal lu bon lu ngeen defut aaya ji boo yàlla wàccee ko laysa alayka hudaahum yonentu bi ko xiroon na ci nit ñi baax ci njëlbeenu lislaam fuqaraawu yi muslimin yi bëri woon mu ne nag kuy saraxe comme mën ngaa jox rek ñu néew doole ñu te nekk ay xéeféer du gëmuñ yàlla waaye comme néew lañ doole te nit lañ yéen bokk euh, dëkk bi bokk société bi mën nga leen di leen dimbale léegi nag mu jigi yàlla dogal jullit ñi bëri ñu ñàkk ñi bari lool bi ñu bëree nag yonent bi ne bu ngeen ni saraxeet yi dee leen ko jox jullit ñi waaye bu leen joxati xéeféer yi ndax ñàkk ga xir leen ni dugg ci diine ci yàlla nag wàccee aay ja ne ko déedéet bul wax kii lañuy jox ak buñ jox kële yow ñoo na seenoon njub sa yoon néew ci waxal rek irsaad moo la war waaye tawfiq ci man la nekk maay dëppale ku ma neex moo tax mu ne ko laysa alayka warul lahu daawum seen ak njub walaakin la fi nekk yàlla walaakin laa ni fi nekk yàlla yahdi mooy gindi ma ne saa ku ko soob wa maa tunfiqu lu ngeen dundale min xayrin ci alal fa li anfusikum ñaanal seen bopp ga de wa maa tunfiqu bu leen dundale ila ibtiqaa wajhi